man ak man bàyyi naa ndax la chaîne télévision Bërkë Ndongo TV international. waaw ñu gën koo xam ci Mbaye Tilène ndeysaan maa ngi bëgg maa ngi déglu Bërkë Ndongo TV l'international waaw waa Sénégal. moom la ñuy déglu waa na moom la ñu déglu foo dem ci monde moom la ñuy déglu kon Bërkë Ndongo ca kaw. man Pa maa ngi seetaan bëgg ndongo TV international di ñaan télé bi xul man jili mbay faal ca kaw bu maa ngi seetaan ak di déglu bëgg ndongo international TV la télévision oh, autrement Jadi, Dimas Wujud apa tidak Kaiser? Wah, pernah bergendong abis bergendong ke TV? Saya Oh, terma. Oh, oh terma. Oh, Mbengue Seck dëkk Mbacke bawal su ma bëggee information yi leer ci bëgg ndongo TV laa koy kal den ak dimanche ku nekk bu 3 heures demi jotee lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi dem si YouTube jàpp sama chaîne préférée muy bëgg ndongo TV international. yee ya, digal MC ngay am foofu maa ngi seetaan ak di déglu saa su ne bëgg ndongo TV international. télévision bi xew ci jamono waaw ak émission Ndongo Lo ba faaw bu ko kenn tardé man faa jom Maroc maa ngi ci biir dëgg neexul rang muy bëgg ndongo international. ma gars bëgg lu neex dégg lu neex gis lu neex bi fii la. bëgg Ndongo TV international oh, autrement di wax sama gaay yi na ngeen abonné bu bëgg a dégg lu neex gis lu man Mbacke Gueye dëkk Touba di fan si Ndongo Lo maa ngi seetaan bëgg Ndongo ci international ci YouTube bay jaay sa baay wuy jeebul joor la télé oh, autrement sur YouTube Instagram fépp kon gars yi gaaw leen dem abonné ji ci Bëgg Ndongo nga njaay depuis Louga seetaan Bëgg Ndongo mbay jaan ko mu tudde doome jéemi la tudde doom jéem mbay jaan yow la tudde doomam waaw vous êtes en direct sur la chaîne télévision bëgg Ndongo TV bi de doom yombul mbokku ndeyum Samba vous êtes en arabo mai kigeru sabo saba wayna la jigenu je jemu daw yal nañ la defal bisu melni yal nañ la langal bisu melni su boba je sa trondo de ci biir barke borom touba non autrement nak bëgg ndongo ci kaw révision autrement mais foko def nak direct bo xamne wuy jéebul jooy dinañ la langal dana ak déglu sama émission bu mag boobu nga xam ne mooy nongolo ba faw émission bi nga xam ne bëgg moo koy def te di la euh, tegal ay son yoo xam yu neex lay doon ak yu doom yombul doom yombul mbokk aram mbay jigéenu Samba Sana jigéenu Samba Sana yaa yoo xale yaa yaa yoo xale yaa Kumba Oromo may jigéenu Samba Samba way naa duuje jéemu ndaw yal nañ la defal bisu mel nii yal langal bisu mel nii su boobaa sa turandoo simeeku kumba arambaay simeeku ñëppay simeeku bay jaañee sa baay wuy jéebul jooy dinañ la langal dana neex su boobaa Moustapha ndonga nee wax ji bari loolu ndonga nee coow li bari na waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di ziar bu baax a baax di nuy ku nekk turam ak santam may ziar tamit euh, mbokki téléspectateur bu Bëgg Ndongo TV international ak ñi ñuy suivre ñëpp ci chaîne YouTube bi di Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal jubal leeral toujours copier mais jamais tout égalé may ziar bu baax a baax nag sunu sëriñ sëriñ Dame Diouf bi Lambaye Lambaye deux fois ma koy ziare bu baax a baax a baax a baax di nuyu tamit euh, waa groupe jàmm waaw su ma nee groupe jàmm rek ziar naa bu baax a baax le grand ménagère muy ji di ñaan ziar naa Assane Ousseynou Seck yàlla yi Ndiame Moussa Giraan ñoom Diouf Malick ak euh, ñëpp daal du Thiam sama xarit ak ñoom Baye Demba ak ñëpp ñu nekk group jàmm bi ñëpp ak Fancy ak ñëpp may ziar bu baax a baax tamit aussi encore une fois tamit euh, waa groupe VIP Mame Cheikh Niang famille di bëgge ñëpp di bëgge ñëpp di bëgge wa Pikine rawata tamit waa deuxième rëbina ku ne xam na ni dimanche prochain comme tey nii macha allah la won tamit 16 janvier fële ci Pikine macha allah tamit ñu ànd ci ak maam Cheikh Niang wa dëgg fa Yalla ñaanal ndongoloo macha allah macha allah tamit def ay wacce kaamil ak lépp waaw tey nag le dimanche à l'instant il est 15 h 5 minutes waaw à l'instant nak nag damay ñëw rek defal leen live en direct bi xamna naa comme ni ma ko daan def rek ñëw rek su ngeen taay wul dama tay ñëw rek defal leen 2 heures de temps de live en direct seen émission Ndongo ba faw waaw tey nag tombé ak élection yi may waxtu tamit nii que le di wax tamit ni waaw que le daal parce que lépp Sénégal la ay doomi sénégalais ay nit ñu gëm seen gox bëgg seen gox ñu posé ay candidats vraiment tamit ku leen xëccoo maire bi may wax tamit ni que le man moom bëgg ndongo international bi ma xëyee tamit euh, dem naa voté ji macha allah sànni ki may sànni que le daal. wax dëgg fi yàlla lépp tamit ak bëgg defar la rek parce que tamit ndeysaan ñëpp ñu ngi naan jox ma jox ma jox ma jox ma nga la waaye tamit ku ñu jox rek vraiment tamit na nga fexe góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax defar waaw na nga fexe bu baax a baax tamit vraiment tamit li nga tamit di sàkku di ci ow nit ñi tamit vraiment tamit na nga ci góorgóorlu bu baax a baax fexe tamit defar bu baax a baax daal fexe defar bu baax baax a baax a baax a baax. waaw mooy ziare ñëpp nag di wax tamit ni mbokk yéen ñuy teewlu fii ci live bi muy seen live émission Ndongo Lo ba faw tey nag dimanche la macha allah xam naa nag son bi may tijjee rek mooy son jàmm parce que gis naan tamit euh, ci communes yi ndeysaan macha allah xëccoo beeg lépp xëccoo beeg lépp macha allah macha allah bëri na trop vraiment gars yi ñu ngi xëccoo ñu naan jox ma jox ma jox ma jox tamit ngelawaay yéen ñi wax ñëpp naan jox ma jox ma jox ma tamit. incha allah xam naa ci kanam ak kanam rek ay ngoon à partir de vingt heures wala vingt deux bu ñu compter xob yi rek macha allah macha tamit euh, keneen ku gañe daal na moroom tamit am dignité am tamit ngoru félicité moroomam vraiment parce que noonu la ñuy xëccoo noonu la il faut kenn jël ndam ni mais tamit ku gañe rek na keneen vraiment tamit félicité bu baax a baax baax moroomam noonu la daal parce que ndam li génn Sénégal waaw di ziar yi ñëpp nag xam naa damay ñëw indi son jàmm bi rek. ma bëgg tamit gars yi dox si jàmm di wax jàmm di jëf jàmm ànd ak jàmm parce que que le waaw ñi xëccoo ñëpp ay doomi réew mi lañ waaw ku si nekk yaa ngi naan jox ma jox ma jox ma jox ma jox ma vraiment tamit bu na joxee nag na nga si góorgóorlu xam naa damay seen émission jàmm bi rek après ñu tijjee ko waaw ñu dikkaat kon ñu dem let's go kon seen émission Ndongo ba faw topp c'est parti ñu dem let's go. jàmmaay yeah. en direct sur la chaîne de télévision Pekendogo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Pekendogo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Pekendogo TV International shit. vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Begundogo TV International. Chers inconditionnels de... Let's go, let's go, Dongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Begundogo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Begendongo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Begendongo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Pegundobo TV International. Chers inconditionnels de Ndongolo, vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Pegundobo TV International.

mire ko garmi moo neex a soppi ndongo tv international seen émission ndongo lo ba faw jàmm rek lay raas di ñaan jàmm nag ci biir réew mi ak li ko wër yépp rawata tamit waa commune Pikine ak li ko wër yépp ak waa Kër Massar ak ñëpp gars yi moom comme ni ma ko waxee rek ndeysaan ndam li gën Sénégal ku nekk da ngaa bëgg sa gox boo sañoon sa gox moo fi gën vraiment tamit nga taxaw di laaj rek naan jox leen ma jox leen ma jox leen mais tamit nga la way gaay ku ñu jox ah vraiment tamit euh, li nga dik sa askan ak tamit euh, jog rek jóob sa gox vraiment tamit war na la nga gor ci bu baax a baax baax parce que ya taxaw laaj ya taxaw jox ma jox ma jox ma mais wax tamit ni gaay yi ko koo xam ngol inshallah ci kanam tuuti rek ay 22 h 23 h ñu compté affaire tamit nga xamni carrément gagné na vraiment tamit na nga jël sa téléphone tamit bañ roy oo oh ki la gagné tamit félicité ko lepp doon jamm rek parce que dama naan li amul jamm jamm mo gën mais wax tamit yéen seetaan live tamit di ko suivre vraiment tamit ngeen def partager lépp dama bëgg ngeen partager ko partager partager ba sa biir palam ñu dem let's go ndongo kaay Hey, du changer dañuy jógee ci jamm rek duggaat ci jamm vraiment tamit parce que dama nan gaay yi lu amul jamm rek jamm mo gën tay nak le dimanche vraiment tamit ñu demon tamit voté ji choisir suñu candidat mi wax tamit ni que le meilleur gagne xamna dañuy jógee ci morceau jamm rek duggaat ci jamm ma koy may gaay yu suivre ñep di wax tamit ma ngi koy may musa giran Giraan Mame Bara sa Ngor di ko may tamit aussi encore tamit soxna Aram fay mi ngi suivre soxna Nabo mi ngi suivre di bëggee bu baaxa baax abou bakkar vraiment tamit mi ngi suivre ak les téléspectateurs de chaîne YouTube bëgg Ndongo TV international bi ñëpp maa leen di bëgg bu baax a baax di leen may tamit live bi muy seen émission Ndongo Lo ba faw seen émission Ndongo Lo faw nag tous les dimanches lay am rek fii ci chaîne YouTube bëgg Ndongo TV international xam naa après nag ba ñu émission ba 17 rek ba ñu daanee rek incha tamit 18 ba muy rajo ci tamit beneen émission bu mu tamit émission Ndongo Lo ba tey boobu nag xam naa si kanam lay am mais Alassane tamit ñu ngi ci première partie wu seen émission noonu la ba faw mais wax tamit ne yi dañuy jóge ci jàmm rek duggaat ci jàmm di bëgg gars yi baax a baax baax ñu ngi suivre mais wax tamit ne xam naa après deuxième partie daa ñëw ci Mame nag parce que Mame Cheikh dafa am lu rëy lu muy waajal mais avant tout tamit dañuy ñëw rek joxe ay morceau jàmm vraiment tamit askan fu waaye mën a nekk rek di suivre suñu live di seetaan suñu live tamit que dama naan jàmm rek jàmm moo ko gën di ñaaxaat candidat ñëpp ñu wax tamit ne tey nag la vote bi vraiment tamit à l'instant nii gars yi kenn xamagul fi nga féete mais xam naa si kanam tuuti rek à de 19 ba 20 heures 21 rek ndeysaan parti politique bu si nekk nag di nga xam nag ndeysaan yaaw ndax yaa a jël maire bi wala ndax waroo jël maire bi mais wax tamit képp ku jël maire tamit say ñeneen tamit ñi xam si tamit ay participants lañ doon xëccoo ak yow tamit vraiment nañ am tamit honorité félicité la vraiment tamit yéen la ndam li boo toogee tamit vraiment tamit nga liggéey pour sa gox évoluer pour sa sa gox taal yi lépp vraiment ñëpp di bëggee gars yi bu baax a baax a baax di bëggee Ababacar Mbaye Thiam ñu ngi may suivre di bëggee baax baax Cheikh Diagne Naar ñu ngi may suivre ak waa Pikine Bés Marine ak ñëpp ñu ngi may suivre may bëggee gars yi di ñëwaat di leen jox son jàmm ñu dem let's go. yaay booy jàmm.

leen wax jàmm rek jàmm rek jàmm rek parce que ndeysaan jàmm ki la lépp xaj ma leen koy ñaax di wax tamit ni Obama ak Abdou Karim Sall que le meilleur gagne incha allah ngoon rek si kanam tuuti à partir de vingt heures ou bien vingt deux heures wala vingt trois heures rek ndeysaan ku ne dina xam fu ngay féete muy wax tamit ni ngalawaay yéen ñaar ñooñu ku si jël ndam ne rek vraiment tamit naw beneen moromam félicité beneen moromam ba vraiment tamit ñu ngi leen te jàmm. vraiment tamit àndandoo booloo rek li ko doxee Zac mbaaw assurance ak tamit euh, Kër Mbay Fall ak Ridis Tol Dias nga ñëw Kër Mbay Fall Kamb ñëw Kër Mbay Fall extension ñëw Kër Mbay Fall cité poste jaare foofu dem Kër Mbay Fall ginnaaw dex ga dugg tamit Petit Mbao jóge Petit Mbao wër encore duggaat euh, gox ba jaar ko de kër Eumeu Sène foofu demit na ndeysaan biir euh, mbaaw ñëw tamit Mbao place publique ñëw encore wër dikk tamit mbaaw boulevard jaar noonu tamit dem mbaaw ndeysaan place ci cité Ndeye Marie jóge foofu tamit dem mbaaw si presse ñuy lance tamit bu baax a baax a baax gars yi tamit euh, vraiment ñu tàppe xol yi yéeneente jàmm xam tamit incha allah ngoon moom soir à partir de vingt heures ou bien vingt et rek ku ne ndeysaan di nga xam fu ngay féete mais tamit ku tamit euh, ñàkk nga tamit gëm yàlla rek te tamit sa beneen morom bi tamit vraiment tamit na la félicité la wax tamit ni nii la parce que ku utiwul doo ñàkk ku uti rek mooy ñàkk que le meilleur gagne lépp tamit ci si biir commune bi ñu ngi tamit diwaanu Grand Mbao lépp tamit di si biir commune bi ndeysaan ku tamit jël ndam li beneen morom tamit na am honorité vraiment tamit félicité la tamit jaajëfal la bu baax a baax a baax a baax tamit wax la tamit nee na léeg-léeg yaa ngi moom affaire yaa tamit que rek euh, tamit gagne. di wax tamit ne encore une fois tamit ci jëndal tamit vraiment tamit mooy ñëw tamit nga toog xam ne nag yaa doon ubbi wax gars yi jox leen ma jox leen ma nag ba gars yi jox la vraiment tamit yi bu baax a baax jàppale suñu yaay jàppale tamit euh, ñëpp daal vraiment tamit affaire yi évolué Sénégal jëm kanam di jaajëfal gars yi bu baax a baax a baax xam naa ne bàyyi tamit moo sa jàmm bi di ko may nag waa Pikine ginnaaw raay di ko may waa Pikine deuxième bu di ko may waa ko may waa Pikine Tali bu bees di ko euh, waa Géejawaay suma xarit Ahmed Aïdara mooy waxtu bi ni préliminaire gañ rek ndeysaan ku yàlla jox ndam li mu xam ni noonu rek la demee di ko jox tamit euh, waa Kër Massar ak ñu fay xëccoo ñëpp wàllu mairie bi ak ñëpp xam naa Alassane moom gars yi ñu ngi ni teg waaw zappe rek dugg biir bëgg ndongo TV international di déglu live bi ñu koy déglu ñëpp maa ngi koy may di ko may nag sama xarit muy Mara Thioub nekk fële sa commune Ndiakharaat Sangalkam moom ñun vraiment mi ngi ànd euh, Omar gay japp ci ginaaw Omar gay vraiment tamit di liggéey liggéey bu rafet ànd ak Omar gay di ko jàppale vraiment tamit euh, Omar gay Mara ci moom nga xam ne ndeysaan dama naan kooku mooy lion de Omar gay vraiment tamit ànd ak Omar gay di ko jàppale ci liggéeyam fële ca Sangalkam fële ca Noflaay moo xam mbambi lor moo xam Gorom 2 Gorom 1 nga ñëw tamit euh, croisement ñaag dem encore tamit njaxeraat dem njaxeraat pël ñooñ ñëpp vraiment tamit Mara Thioub ñu ngi liggéey foofu liggéey bu am solo nekk cité ko di jàppal tamit seen talent yi ñëpp bu baax a baax a baax a baax may wax tamit Mara Thioub ndeysaan jàmbaar yi Omar Gueye di ko ñaanal tamit bon vent di wax tamit yéen tamit yéen a ngi xëccoo di am tamit lu ngeen di laaj di wax tamit ñi ndeysaan ngeen ko jëlee rek tamit ku ngeen di xëccoo tamit fii ci ñaan rek ñaanal tamit ndam li jël leen bu baax a baax a baax a baax xam naa tamit lii lépp Sénégal la jërul xëccoo jërul xëyroo jërul yenn kii ndeysaan ku gañe rek mu xam ni ndam li la te tamit ku rek tamit mu xam ni bu baax a baax tamit comme yaa taxawoon di laajte naan jox leen ma jox leen ma soo gañee rek nga taxaw góorgóorlu liggéey kon let's go ñu dem ndongo kaay ndongo la wax ay maam maam ëppul rëyul nayul ndooy ëppul reyul nayil maam Asis ëppul reyul nayil maam ëppul reyul nayil ju ko yonent bi la lambo ku njaay fa maam ku bëgg maam Abdul loxo ca kaw son amul joolaa yee so see murit beeg laayeen beeg xaadir yaa bi ñëpp la yamala woon ñi benn mu lay Yeah. waaw may wax tamit ni gars kon ne leen rek di bind ci chat bi waaw gars yi ñëw leen ñu waxtaan si cet bi ñëw leen ñu waxtaan si chat lu waaye bind rek dinaa la tontu vraiment maa ngi nii jàkkaarloo sama portable di gis chat bi ak lépp leen ñu waxtaan si chat bi lu waaye bind rek dinaa la tontu vraiment tamit xam nga à yi damay def euh, live en direct mais à yi wax dëgg fa yàlla tamit ñaari portable laa yor benn portable bi ci lay lancé live direct bi en même beneen portable moom laa yor nii vraiment tamit ci laay lire chat bi ak lépp waaye xam naa nag incha allah tamit bëgg naa trop live en direct bi ma ko defee tamit ma portable tamit tijji ci whatsapp vraiment tamit euh, di dugal appel whatsapp yi bu boobaa gars yi di jaaree ci ligne bi di woote ma leen di jël xam naa loolu yàggatul dara dinaa commencé tamit euh, indiwaat live yooyu parce que tamit ndeysaan ñiy déglu alisaan yi gars yi ñu ngi bind nii di commentaire vraiment tamit gars yi dañuy réagir parce que ñoom bu ñu tamit dañuy woote direct ma jël leen ci live bi ñu partagé waxtaan suñu biir mais yooyu yëpp dana amaat incha allah dinaa di nekk foofu nekk fii ngeen di oote ma di leen jël mais Alassane yi nak mënuma jël appel mais chat bi mom continuer na di bind set lu way bind set na la tontu di jaajëfal gars bu baaxa baax kon ñu dem let's go ndongo daa bëgg ndongo waaw jaral na ko xexa xulo ba ma dëgg la su may way noona si sama xol day fees d'abord ya la yamale woon ñi benn maam ëppul rëyul neyul booy ëppul ëppul rëyul neyul waaw waaw ci ko yonent bi lamboo ba dem maam asiiso yee jama booy jamay yee jama sama yaay jama laa la yéene Sénégal jàmm sama réew jàmm laa leen yéene wóor na yàlla Fall bind Sëriñ Tuuba mu julli ci géej gi yàlla bind maam li maamu laay mu randal géej gi yàlla bind maam Abdul Asis mu dund ba dee amul noone waaw loolu dëgg la maam Abdul Asis Baba Faale baax baba ba dem maam Asis ca kanam da baax a ba dem mu laay Asis ca kanam yàlla nga naan jërëjëf yonent ba naan jërëjëf mbindeef fi naan jërëjëf mu laay asiis ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam yee jàmm ko du changé ba tey ndeysaan dama naan jàmm du doy waaw Cheikh Diagne Naar yaa ngi en direct dama suivre man wax tamit ni partagé partagé partagé ba ca biir pale ba waaye jàmm du doy jàmm dañoo jógee si jàmm rek dañuy duggaat si jàmm encore may ziar tamit mbokk yi ñuy seetaan ñëpp di ñu suivre mais wax tamit ne gars yi partagé leen ba sa biir pale ba muy bëggee gars yi bu baax a baax a baax tey ci dimanche bi di wax tamit yéen tamit seen émission Ndongo Lo ba faw di wax tamit seen émission noonu faw nag à l'instant yi 15 heures lay tàmbali ba 17h après ñu jeexal bu ñu jeexal tamit dañuy pause rek 18h bi noppalu incha allah 19 rek ñu dem fële ci rajo Leeral FM 96 point 1 Dakar defal si moo tudd émission Ndongo ba tey boobu nag nga tàmbali fële ci rajo Leeral FM ba 20h waaw boobu nag incha ku ci bëgg a oote rek fële ci rajo ba mën nga oote xam naa ci kanam ak kanam ak kanam bu rek la dem ci rajo ba eggale émission foofu ñun moom macha allah ndeysaan Ndongo Lo dama naan jour yëpp anniversaire di bëggee gars yi bu baax a baax ñuy suivre di wax tamit ne gars yi na si canam tamit di bindante maa ngi di bëggee bu baax a baax a baax di bëggee ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw dimanche ma ma ñëw rek di leen bëggal ci ndongo ndongo seen Fallou di wax tamit yéen a ngi suivre tamit seen chaîne muy chaîne télévision de chaîne télévision leader muy chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement chaîne télévision Ndongo Lo chaîne télévision képp kuy fas Ndongo Lo waaw mooy bi di wax tamit ni la chaîne télévision autrement sa émission dëggal jubal leeral toujours copier mais jamais du tout égalé di bëgg gars baax a baax nag xam naa nag ci kanam a kanam nag dinaa ñëw ci deuxième partie bi indi leen tamit maam Cheikh Niang ndeysaan maam Cheikh nag day waaj lu rëy rëy maam Cheikh day waaj lu yéeme maam Cheikh day waaj lu rëy rëy mais avant tout dañuy dugg si jàmm ba pare rek pour tamit soulager waa dëkk beeg waa Pikine ñuy seetaan waa waay waa Grand Dakar su ma nee lim sax damay ju maanaam ñiy seetaan ci àdduna bi monde entier bi ñëpp ñu leen di soulager di leen wax tamit ne lépp dañ ko def ci jàmm parce que lu amul jàmm dama naan jàmm moo gën kon let's go nañ dugaat ci jàmm encore ñu dem let's go woo woo woo papis suux naay suñu xeet wa saay nañu sama xel dem ci maam asiisa bu njaay faamaay yoo yoo yoo yoo yoo def ci néeg bi li nga dul def ci néeg bi muy li nga du ko def ci mbedd bi jàmm ji may ñaan ba biisoo pour ñu booloo su ma fàttaliku yi wa ñoo ko doon baane taw Casamance waxoon naa fi nañ ci wax gaaw xamoon naa ni ndox mi walwa kenn xamul ko mi teere gaal ga suuf naay sama xeet wasaay sama xel dem ci maam asiiso bu jaayi faanaay yàlla billaay bennooy yéene ñeeng mooy sa yaay yée yaa ma gëmaam daba ñeeng mooy sa yaay suma yaay mooy yéene naa la jàmm sa dund a dee a noonu xar yàlla bopp a eh mu lay si ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam ndeysaan déggal déggal déggal déggal Assane seexu yàlla bi déggal Ousin déggal Ousin ak la muy la muy la muy la dóor clavier ba déggal déggal non yéeme na déggal la muy harmonie rek déggal musique musique émotionnelle ba waaw lii nag moo tudd musique émotionnelle ndeysaan fi noonu la naan ay sufieto arab bokko ngu jaay faama yàlla bind si na Muhammad muy kar gi fi def fii ndeysaan Ouzin Seck yàlla bi muy traversé Ndongo Lo di ko joué musique émotionnelle waaw lu yéeme ndeysaan ndeysaan déggal déggal déggal déggal déggal sol ba déggal sol ba muy laal. baxuroo ngi nii ci yéen lu am ci jaam ñi la jëm dencul dërëm di defe bu lay asiis sa kanam bu fekke ay jamono jàppal te ngoy bu dëgër dalay jariñ du la lor bu lay asiis sa kanam moo yor jàmmi réew mi moo yoroon jàmmi nguur gi moo yoroon jàmmi diine gi bu lay asiis sa kanam maam amul joolaa amul soose maam bul beeg laayeen beeg xaadir

te ndongo loo mu Serigne Fallou Mbacké ndeysaan macha allah mu woy ko ci jàmm affaire bi neexoon trop trop trop pare tamit ndeysaan jógeguñ ci jàmm de tey moom première partie bi ci son jàmm rek la ñuy wax incha allah tamit euh, bu ñu paree rek bu ñu duggee ci deuxième partie bi nag ñu ñëw nag indi leen nag maam seex Niang wax tamit ci bisu maam seex Niang yi parce que maam Cheikh Niang dafa oote fële ci CCS de foire te xam nga ni CCS du ay caaxaan mais nañ ñu dem nës ko. ba suux naay suñu xeet wa saay nañu sama xel dem ci maam asiisa bu njaay faamaay yoo yoo yoo piis ba gaal ga suuxee ñii di ñaan yërmande sama xel dem ci maam asiisa bu faamaay nga dul dem ci kër gee muy du ko def ci néeg bi li nga dul def ci néeg bi muy li nga du ko def ci mbedd bi jàmm ji may ñaan papi soo pour ñu mbooloo su ma fàttaliku yi waa ñoo ko jox ba खोली तेरे gaal ga suuf naay sama xel loo saay sama xel dem ci maam Asiiso bu jaay faamaay wuy jamoote ñëw leen ñu bennoo te ngir yàlla ñu bennoo silay bennooy yéené ñeeng mooy sa yaay yaa bëgg maam na ba ñeeng mooy sa yaay suma yaay booy yéené naa la jàmm yor jàmmi réew mi moo yoroon jàmmi nguur gi moo yoroon jàmmi diine gi mu lay asiis sa kanam maam amul joola maam amul soose maam kurit beeg laayeen beeg xaadir yaa beey ñëpp la yem la woon i benn ci moom asiis sa kanam sa kanam sa kanam sa kanam sa kanam maam ëppul rëyul nay booy ëppul rëyul nayul daa booy ëppul ëppul rëyul nayul jikko yonent bi la la booy yee jama wooy jama yee jama away. Papa Demba parce que ndeysaan lu amul jàmm rek jàmm moo ko gën may ziare gars bu baax a baax nag ñu ñuy suivre ma leen wax tamit nii ndeysaan partagé leen partagé partagé partagé ba sa biir pale ba may ziar gars bu baax a baax a baax dem diwaanu Kër Mbay Fall dafa fekk sama ay tons ñoom Papa Dieye tons Yamar tons Baara di ziare ñëpp di ko may nag euh, waa war Louga rawatina tamit euh, waa Saxaaf waa Njagu Roy di ko may Alaaji Cheikhu sama rakk ji di ko may tamit euh, tons Góora di ko may tamit ñëpp daal waaw ku lu kuy njàmbur njàmbur rek maa la koy may di ko may tamit ku lu kuy sénégalais daal tout le monde di ko may ñëpp di ko may nag waa Pikine di wax tamit ne yéen seen émission muy émission Ndongo Lo ba faw seen émission Ndongo Lo faw nag du ay caaxaan du ay kalang-kalang nii rek lay demee saa su nekk tous les dimanches ma ñëw toog defal leen live en direct bi waaw xam nga tamit tous les def une heure de temps live dama def tamit euh, daanaka deux heures de temps laay def live en direct waaw deux heures de temps laay def live en direct mais wax tamit ni gars yi yéen ñu suivre tamit ngeen partager partager partager ba ca biir pare ba waaw di bëggee ñëpp nag di wax tamit ni gars yi ba tey su ngeen bëggee ñu waxtaan rek mën ngeen ñëw ci chat bi après ñu waxtaan waaw su ngeen bëggee ñu waxtaan rek mën ngeen ñëw ci chat bi après ñu waxtaan di wax tamit ni tey nag le bisu vote bi muy tamit dimanche muy wax tamit ni que le meilleur gagne waaw que le meilleur gagne waaw di wax tamit yow mi nekk tamit perdant bi bu ñu compter xob yi ngelawaay bul mer vraiment tamit all ki jël ndam li rek nga féliciter ko parce que Sénégal loola baaxoo yow mi tamit jël ndam li ngelawaay la waay benn xalaat mooy tamit ba nga taxawee naan jox leen ma jox leen ma ba boole seen ay voix jox la nga tamit na nga ñëw téye affaire yi vraiment tamit góorgóorlu liggéey sa gox waaw Sénégal jëm kanam di ziare ñëpp waaw axlu ndongo bàyyiwuma kenn di ziare ñëpp rawatina nag tamit waaw groupe jàmm ba tey di ziare ñëpp grand ji di ñaa ñëpp di ziare Ndiambe Guèye Ndiambe Moussa Giraan maam Barama sa Ngor di bëgg ñëpp di ziare nag sama xarit Vieux Guèye da koy bëggee bu baax baax vraiment vie gi souvent daf may oo oh, di rakk si njàmbe di bëggee bu baax baax tamit magee ñaa nekk diwaanu Espagne ak tamit Ablaye gay ma koy bëggee di bëggee soxna Nabou soxna Aram fay borom Mbour la Lion de mam Cheikh Niang ma koy bëggee di bëggee tamit El Hadj Sadiane Nar koku mom dama nan l'ambassadeur ndongolo 100 fois ma koy bëggee bu baax baax di bëggee Mbengue sek di bëggee Papa sen sen Thial Demba sen di bëggee ñoom Abé Cissé borom premier fall di bëggee ñëpp bàyyi ma kéem kullu kuy fas dama maa lay bëggee bu baax a baax a baax ndeysaan gis nañ dimanche dernier nga xam ne dimanche dernier bi passé moo nekkoon anniversaire de Ndongo bi nekkoon tamit le 16 janvier vraiment tamit gis nañ tamit ñu fas Ndongo Lo ñëwee en masse tamit teew maam Cheikh tamit ñaanal magam ñu ànd si ak moom rek ñu ngi bëggee ñu fa teewoon ñëpp su ma limee damay juum waaye nag maa ngi beral nuyoo bu baax a baax tons ji bay faal borom fii ak fee ca kaw ndeysaan le bi dem naa ba këram jëli ji benn émission live en direct ndeysaan boobu tàyyiwul xàddiwul ñu def émission ba pare bi ñu paree tamit lañ ñëwaat encore ci ñaan gi vraiment tamit euh, mu ñëw teew nekk fa nekk fa nekk fa ba ngoon mu doog a ñibbi moom Tons Jiri Mbay Fall ba koy ziar bu baax a baax nag di ko solide passage di ko tamit euh, jaale lu ñu bokk rek ndeysaan soxnaam la papam wàññeeku xam naa sax à l'instant nii tamit euh, ñaanal lañ ko ba pare na barkaat démb la. ma koy ziar bu baax a baax tons jili may faal di la jaare lu ñu bokk di ko jaare tamit euh, sa soxna ak waa kër gaal ñëpp di la béggee bu baax a baax waa Pikine bàyyiwuma kenn xam naa nag gën nañ ci Ndongo jàmm mais dañuy ñëw dugaat si jàmm nag ñëw nag ci deuxième partie bi waaye deuxième partie nag tey Mame laa la parce que Mame Cheikh dafa indi dafa woy single bu bees waaye nag balaa deuxième partie bi ñëw xaar ma dem jëli waat beneen Ndongo Lo jàmm waaw Ndongo Lo jàmm bi nag ma nga ko woy woon fële ca diwaanu Mauritanie mu nekk lu yéeme yéeme kon ñu dem let's go ñu dem ak jàmm ñu dem une deux trois let's go ñu dem. dama bëgg ngeen raison ba si biir palais ba waaw parce que tey ndeysaan lii lépp jàmm la dama naan lu amul jàmm jàmm moo ko gën looloo waral tey seen émission live en direct euh, di émission Ndongo Lo ba faw mu ñëw rek tijjee premier part bi lépp jàmm parce que ku ne xam na tamit à l'instant muy ci gox yeeg commune yi su damay juum waaye la ko tàmbalee Dakar Plateau nga dugg Wakaam nga dugg Yoof nga dugg tamit euh, Jàmmulaay nga dugg Parcelles nga dugg Cambérène ba da ngay wàcc see Géejawaay ba ni ngay ñëwee Pikine ba ni ngay ñëwee encore une fois tamit Thiaroye ba ni ngay ñëwee Diamaguène kam Mbao ba ni ngay ñëwee Boune ba ni ngay duggee encore dem Kër Massar ba ni ngay duggee commune Jaxaay nga jógee Jaxaay dugg commune kam ni ngay duggee Gorom Gorom Gorom Gorom muy Gorom euh, comment dire Gorom 1 Gorom 2 ba ni ngay demee Nooflaay Mbambilor comprendre nga ak tamit euh, Njaxeraat Pël waaw cité Doudou Ba cité Doudou Bakar sar loolu yëpp vraiment tamit à l'instant nii jàmm rek la ñuy ñaan bu baax a baax a baax parce que à l'instant nii ndeysaan ku nekk ngi ni teg jàpp rajo ba nga jàpp ndeysaan di déglu say voix naan diw lii diw am na lii diw am na lii comprendre nga déglu say voix bu baax a baax a baax a baax ba xam yow fan fan fan dëgg-dëgg fa ngay mujjee waaye tamit wax tamit ndeysaan ku yàlla may ndam ne rek ñu lay félicité te la wax bon vent la wax tamit ñëwal te tamit ngelawaay yaa waxoon jox leen ma jox leen ma tamit ñëwal nga liggéey rek si jàmm ak salaam parce que dama nan jamm mom bu jëkku rek mujj est-ce que dengen ma gars yi waaw sama ben gars mo doon wax da Baye Fall nee ma bëgg ndongo ma ko nam bu ma jamm su jëkku rek mujj waaw jàmm su jëkku rek mujj moo tax jàmm rek te nak mu ni ma encore une fois tamit lu amul jamm jamm mo ko gën te ndeysaan ndongoloo ku ne xam ne ne mooy ndongoloo mu Serigne fallu indi groupe am encore tuddé ko groupe jamm nga xamni koku ci jamm ak salam ci lay dox wa groupe jamm nak maa len ziar bu baakha baakha baax di jiite ci nuyoo bi nak jirinya su mu nee jiriñaa nee naa Assane Ousseynou Seexu yàlla bi nee tamit Ousmane Camara la grand batterie neena mbay tam neena Abdou Thiam comprendre nga neena solo Touré waaw ñëpp daal lim ñu membre batteur bu den di ziar waaw ku ma ma tudd ziar ñepp parce que macha allah bëgg naa malik Diouf dal ñepp daal na bëgg naa la waa di wax tamit ni tay mom def lepp ci fair play te ndeysaan vote yi ku nekk sa candidat Papa sen moom ma nga ci diwaanu Thiès moom ndeysaan ma nga àndal leader waaye tamit ñu lay ñaanal jàmm rek ndeysaan boo gañee nga jël affaire yi ci jàmm ak salaam doxal liggéey bu la gañee tamit ndeysaan démérité woo incha allah tamit nga fexe tamit eh, rootiwaat rek ndeysaan ak xool tamit ban voix nga jaar parce que dama naan Sénégal nu waay mën a liggéeyale goxam bëri na trop moo xam jeune bu nekk si koñ bi ku mën a doon ku nekk la nga mën a góorgóorlu jëriñ sa gox bëri na parce que dimanche jot sax nga indi sa seen musique teg indi say radu indi encore say say euh, kii comment dire say brouette ak lépp génnee jeunes yi ak équipe équipe bu koñ beeg ñëpp jeunes yi génn ak ñëpp vraiment tamit nga xool koñ bi di bale di bale di set setal di bale di set setal di defar di defar di defar di defar bu koñ bi set wecc wecc wecc wecc nga dajale mbalit bi benn coin oto mbalit bi ñëw jaar ñu yóbbu di moins sax ku ñëw ci quartier bi boo xoolee dana ne quartier bi kat set na loolu rek déjà ku nekk da nga mën a liggéey sa gox bëri na waaw loolu la boo ñëwee fii ci diwaanu Fass Ba vraiment tamit sama boy gars yi ñu ngi ciy góorgóorlu di ko def ku mel ne ñoom sëñ Fallou ndeysaan ñoom dimanche prochain rek gis naa ñu ngi ci sa koñ bi di ko def tamit dëgg waaw loolu la parce que léegi mën naa wax ne amatul toog xaar waaw ay toog xaar lii wala laa wala yaakaar ci président wala maire bi wala lii ku nekk góor jàpp si góor rek waaw ñu ànd dem waaw loolu kese la ñu ziarat gars yi bu baax a baax di wax tamit ne gars yi lii nañ gën a delloo suñu xel rek xam ne lépp jàmm lay mujjee man moom macha allah tey ma xëyee ay 9h 10h bi ci laa dem voté ji ci laa dem voté ji vraiment tamit voté ki may voté ndeysaan di defar tamit première gain daal waa xam naa ne à l'instant yi nag ñu ngi seen émission première part bi xam naa ci kanam nag morceau jàmm bi bu jeexee rek maam Cheikh Niang laay dem xooli ci après indi ko nag ñu wax ci bisu maam Cheikh Niang bi nag jeexalee ko deuxième partie bi waaw xam naa ko mel na Matar Wali ménagère am bu fekkee mu ngi ci online ñu dégg su ootee après ñu jël ko. par appel whatsapp xam naa ñu dem jëri ji ko ku mel ne Cheikh Diagne xam naa daañu ko jëri ji ku mel ne seeni fay ñu ngi koy jeex buñ ko gisee rek jëri ji ko ñu gën a wax ci bis bi parce que tamit ndeysaan Mame Cheikh Niang dafa def lu yéeme day def hommage Ndongo Lo fële ci CICES muy foire waaw ndeysaan mu nekk hommage bu yéeme boo xam tamit ndeysaan da kaa defal Ndongo mu nekk le 5 février kooku nag bis boobu ñu ngi ciy woo ñëpp comme keroog ndeysaan ni ma ko waxee rek keroog ma tasee ak baay Fall bi muy tamit euh, Wally Ballago Seck nga xam tamit man li ma ko wax leer na nee naa ko vraiment waale mun ma naam ma ne ko mucc laa lay ñaanal rek soxlu ma sa xaalis soxlu ma sa dara mais dama lay ñaanal mucc parce que fii nga toll ci wàllu aar bi ndongo la si sëñ Fall Mbacké toll woon na fu ko raw comprendre nga ba tax na man mucc laa lay ñaanal ak sa yoon bu la kenn fagastal nga avancer dox dem comprendre nga ñu waxtaan essence lu bëree bëri mënu ma bëgg ndongo ma ne ko naam mun ma incha la cinq bi dañ ko yoole yoole incha allah si jàpp waaw ñu si woo ñooyu ñëpp ak ñoom Pape Diouf képp kuy nitu Pikine képp kuy waa Pikine ñu ngi oo parce que hommage bi bu neen ndongoloo rek nee nañ mondial parce que ndongoloo ndongoloo ñëpp la waaw amul Jean amul Paul bu neen ndongoloo rek maanaam turu ndongoloo mondial la woo ci ñëpp na ci ñëpp ñëw jàpp moo xam fan sam yu nekk de près ou bien fan sam yu nekk de loin vraiment na si ñëpp ñëw jàpp parce que bis bi seen bis la bis bi du bisu sax fan si ndongoloo yi mun naa ne bis bi bisu Sénégal la mu le 5 février fu la ci ñëw nag ci bisu Mame Siya bi nañ dem ci mbota jàmm lii nag ndeysaan ma ngi amoon fële ca Mauritania Ndongo Lo demoon fa benn concert boo xam ne sii macha allah waa Vitale yi ñoo ko yóbbu woon mu dem fa woyi ji benn concert fële ca Mauritania dem fa xar ko ñaar ndeysaan fa la woyee morceau bi nag muy morceau jàmm ku soxal neex loxo loxo loxo loxo taj taj taj du changé mu ne ko du changé du changé ndeysaan jàmm ñu ñaanal ñëpp nag am jàmm bu baax a baax a baax parce que lu amul jàmm rek ndeysaan comme ni mu waxee rek jàmm moo gën waaye tey dafa am lu yéeme lu am muy tamit euh, maam Cheikh Niang le petit frère de Ndongo xam naa à l'instant tamit euh, damay fexe rek ñu def tout droit dugg ci deuxième partie bi oo oh, xam naa nag deuxième partie bi ku mel ne El Hadj Naar xam naa bu ñëwee rek ñu jël ko pour tamit wax ci bis bi waaw maam Cheikh Niang ñu ni fan lay defee hommage Dóomu Ndóo xanaa fa lay ci foire CICES muy tamit bis bu mag a mag a mag a mag bu bu tamit bu njëgleen Ndóomu Ndóo bis boobu nag bisu kullu kuy fan si Ndóomu Ndóo bisu tamit kullu kuy nitu Ndóomu Ndóo xam naa nag dañuy ñëw indi ci benn maam Cheikh ñaa après incha tamit euh, ñu wax ci bis bi parce que ndeysaan bis boobu waaw dina yéeme trop trop trop ndeysaan bis boobu dama naan gars yi képp ku yéex rek vraiment tamit doo am tikki bu ko roobee si kàttanu yàlla ku yeex rek do am tigi vraiment boo xam nak dañuy ñew rek dem seeti ji mam Cheikh nya waaw après tamit euh, ñuy wax ci bis bi parce que le 16 bi machallah machallah mam Cheikh mi nga woté woote ci ca Foire waaw wo ci nak euh, am na jamm yek fan su ndongu lo yek waaw mam Cheikh nya nak way ci lu bees waaw lu bees tak la ci woy muy piccum doole bi way ci encore tamit euh, son bi mi ngi nek bu bëggati dëkk ba dëkk fa su la dëkk ba bëggee dawal gaaw waaw son bi nak vraiment tamit neex na trop trop trop trop maam sa ñaa way ko way ci wa pik nag ñëpp dal vraiment tamit way ci tamit euh olera olera ndongo loye muy ñom mbay seen ak ñëpp xam naa dañuy ñëw balance son bi après tamit euh, ñu wax ci affaire yi. Prediction. bëgg begitu dëkk begitu dëkk begitu, bu begitu dëkk ba bëggee dëkk waaw bul bëggati réew ba dem son bi rek après ñu waxtaan dañuy wàccee son bi après ñu waxtaan vraiment son bi après vraiment ñu waxtaan son bi après ñu waxtaan waaw maam Cheikh ñaa nag le petit frère de ci Cissés waaw ñu ne kañ lay am xanaa le le 5 lay am le février lay am le février lay am xam naa nag l' ambassadeur de Ndongo Lo muy Cheikh Ndiaye naan dafa mel ne bu ñu yoon bi xam naa bu ñëwee ma jël ko. alo Baye Diagne maa ngi laa ziar maa ngi laa ziar. waaw yaa ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international. waaw ndeysaan daal am na solo. waaw tey nag. waaw ñuy waxtaane bisu maam Cheikh Niang boobu di la 5 février. ci waaw dëgg la loolu moom mooy ordre du jour bi sax loolu la ñu war a waxtaan parce que moom mooy événement bu gën a mag waaw dañoo live ba am une heure de temps waaw dëgg la dëgg la waaw beneen une heure temps bu des nag ñu ko ak maam Cheikh Niang wax ci la 5 février parce que la 5 bi nag moom bis la bis bu bis la bu mag a mag a mag a mag waaw waaw bis bis bu mag la bis bu mag la macha allah boo xam ne dañ rendre euh, hommage waaw mu nekk euh, lu am solo loo xam ni yaakaar naa ni euh, fan si Ndongo yëpp war nañ si jot dëgg waaw fal si ndongo fépp war na si jot parce que comme ndongo loolu la ñuy defal hommage bu mag boobu. Mhm. Euh, yaakaar naa ni donc euh, xibaar bi dafa war gën a tas gën a yaatu. ñëpp jot si. ndax euh, ba léegi ñu ngi xaar lu mel nii. waaw fal si ndongo looy namm nañu ndongoloo. te xam naa ni le cinq bi maam Cheikh ña ngi lim si waaj mooy dellu si waat rek ay woyu ndongolo. donc euh, pour bëggalaat fan si ndax fan si waaw doole ñu si ndongolo. donc euh, bu rakkam ñëwee bokk moom day bàyyi ñëw war nga defal hommage loolu yaakaar naa ni événement bu rëy la. waaw te yow aussi yaa si dox lu am solo yaa si yaa ngi si jàpp baax a baax ndax li nga def si chaîne bi nii di ko siiwal nii loolu moom lañ si bëgg parce que dañu bëgg xew-xew bi. dëgg la waaw ñu ne dégg bu baax a baax Diagne. allo allo oui. waaw ma ne waaw ma ne macha allah donc euh, di wax fan sa Ndongo Lo yi rek ñi nga xam ne ñi ngi déglu ñi nga xam ne ñi ngi suivre chaîne bi mhm. donc euh, képp koo xam ne yaa ngi suivre direct bi rek boo jotee xibaar bi na nga ko jéem a tas. noo ko mënee rek nga tas ko ba mu yaatu. ndax xëy na dana am fan fans ndongo la yoo xam ni lu mel ni ñi ngi koy xaar bu yàgg ba léegi donc euh, xëy na xamuñ fu ñu ko war a yëgee donc euh, ku ko fii rek na nga ko fexe yëgle donc euh, loolu mooy actuellement li nga xam ne moom la fans ndongo yëpp ñi nga xam ne jot nañ ci xibaar bi li ñu war a def. donc képp koo xam ne bëgg nga ndongo rek. war nga xam ni am na ñeneen ñu la gën a bëgg ndongo waaye xamuñu fu ñuy jaar. ba jot ci xibaar bi waaw loolu moo am solo donc képp ku jot xibaar bi rek nañ ko tas ñun loolu lool actuellement loolu rek mooy suñu wax. ndax fi ñu toll mooy. événement bi jot ñëpp jot si. le 5 février waaw le 5 février 2022. c' est CICES. c' est foire CICES waaw salle bi yaakaar la ñu xamoon nu lan inter africaine. ok ok inter africaine. waaw bi nekk si biir CICES foofu la ñuy defee soirée bi donc euh, pour nit ñi xam fan la donc euh, pour fàttali nit ñi fan la rek. CICES mm-hmm. lay doon le 5 février samedi lay doon ëllëg si dimanche la da ngay tëdd noppalu. donc euh, pour ñëpp ñëpp waajal ko rek dis des na deux semaines donc le 5 février soreetul. donc actuellement li nga solo la ñu war a wax moo di rek. xibaar bi na na na yaatu na tas ndax bari na ay fans Ndongo Lo yoo xam ne ñoo gën a bëgg Ndongo Lo foofu. te xëy na xamuñu fu ñu war a jaar donc képp ku si jot rek Euh, jottali ko sa morom muy muy jàll di jàll ba ñëpp jot si. comme ni nga koy waxee rek na na na na na na. na wër partagé ba ba biir palais comme ni nga koy waxee. ñu partagé ko ba biir palais la la cinq. waaw. Macky Sall ak Marème ñëpp dama bëgg ñu mobiliser wu indi. indi oto lépp si biir ñëpp ñëpp dañu war a def direction fële ku ku ñëwuleet nga am ku nga am waaw ku ñëwuleet nga am ku la fu ku la teewal. dëgg la waaw war na tas ba biir maison blanche waaw. dëgg war na def ba ba biir maison blanche. fu war na ko dugg. parce que parce que Diagne donc euh, parce que ah. keroog ma dajeeg Wally Seck rek maa ngi koy wax. waaw keroog dégg naa la waaw si suivre naa la yow ko wàllu keroog bi nga nekkee si eh, rajo ba. ko bi nga génnee noonu dajeeg moom. ma ne ko Mariasin waaw ma ne mun ma naam. Mm-hmm. waaw. ma ne ko man moom laajuma la xaas laajuma la dara mais damaa bëgg la cinq février. Mm-hmm. spécial hommage à Ndongo Lo la fii ci foire bi. waaw ma bëgg nag le jour si nag nga ànd ak faramaareen yeeg. waaw parce que Ndongo Lo. Ndongo Lo bokkul non waale waale moom jë waale moom jarul ñu insister waale moom bis bisam la parce que maam Cheikh moom xam na ne maam Cheikh doomam la xaritam la. donc rakkam la donc euh, kooku moom bésu bésu waale la kooku moom waale moom moom euh, waaw loolu moom bisam la moom duñ si sax sore. waaw waali moom loolu moom xam nañ ni bésam la ndax waale moom mooy mooy mooy maam Cheikh maam Cheikh mooy moom ndax duñu ñoom ñaar ñi ngi déggante tout le temps donc réeroo wuñu si dara te lépp lu maam Cheikh nekk waale daf siy jàpp donc waale moom jarul ñu si insister kooku moom bésam la mi ngi si loxoom donc euh, voilà ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax mooy ñi nga xam ne xëy na ñoo xaw a sore tuuti euh, xaw nekk si beneen domaine boo xam ne xëy na xaw na sore maam Cheikh mais bu dee waali moom ak maam Cheikh ñu ngi déggoo tous les jours donc foofu moom du amul benn problème donc euh, donc comme ni ma wax rek actuellement lenn kese moo am solo mooy information bi circulé bu baax a baax a baax. waaw yaakaar naa ni Matar Waale mi ngi liggéey lu am solo. fan si aussi am nañu bëri production xanaa moom war waaw moom mooy moom mooy moom mooy yore labelu maam Cheikh bi label de production maam Cheikh muy Matar wala Matar gentleman production donc Matar mi liggéey lu am solo. waaw gis naa fan yii ñuy dem si tele yi si rajo yi di di def fay di fay ñu leen di invité et tout. même keroog leeral sax invité woon nañu leen foofu je pense. donc euh, si leeral leeral. waaw mooy seen télé bi rek seen rajo bi. suñu rajo bi rajo Ndongo bi macha allah. dëgg la waaw mooy te rajo Ndongo Lo bi télé Ndongo bi donc euh, leeral euh, leeral FM. dëgg la macha allah donc euh, loolu am na solo donc noonu la ñu war a def si télé yëpp waaw bu ñëpp mën si jot parce que actuellement fi ñu toll mooy promotion bi soirée bi pour mu mën a yaatu ndax bari na fans yoo xam ne comme ni nga ko waxee au début rek lu mel nii yàkkamti nañ ko. waaw yàkkamti woon nañ ko te xëy na donc yëguñu ko. donc war nañ ko yëglee loolu moo am solo actuellement loolu rek pour man benn kàddu boobu rek laa am moom laay wax di ko waxaat rek mooy na ah, information bi circulé fans bu déglu euh, live bi mm-hmm. euh, boo si jógee defal li la war donc boo ko defee euh, voilà comme ni ñu koy waxee si biir groupe bi rek donc boo ko defee sa bopp nga ko defal ndax ndax bésu Ndongo Lo la donc bu amee succès fans Ndongo Lo yëpp ñu siggi donc bu amee bu réussir fas nangu lépp ñuy siggi te yow mi nga xam ne yaa ko yëg te war ko yëgle yow da ngay siggi donc boo ko yëglee mu am succès rek sa succès la donc euh, voilà euh, yaakaar naa ni fas nangu yi ñoom ah, ah, voilà donc xam nañ loolu donc euh, voilà donc nañu jéem a ànd nekk benn rek bañ a xàcc xëcc fi jëm fële bañ a lool ànd def benn bloc rek xam ne benn nangu la am ñëpp ñoo ko bokk donc li ñu si bëgg rek mooy Euh, voilà ku ne si ñun ah, foo foo tollee ni fan si nangu loola rek kenn kenn bañ la xeeb. donc euh, soo bañoo ñu xeeb la nag yow yaay bañ a xeeblu sa bopp yow yaay def lu lu am solo lu lu lu lu loo xam ni vraiment lu rafet la kenn bañ la xeeb donc euh, Ndongo Lo donc ñëpp ko apprécier donc képp ku kuy identifier si Ndongo rek da nga war a am comportement bu rafet boo xam ni foo dem aussi ñu apprécier la. donc dana tax aussi bon tur Ndongo Lo doo ko mën a yàq deram doo ko mën a yàq mais mais en tout cas da nga da nga war Lo façon boo xam ni en tout cas yow ku la gis buñ ko waxee ni kii fan su Lo la dan dañ ne ah lii de bettu ma ndax fan su Ndongo Lo moom nii la war mel donc moo tax ma ne donc euh, ku ne si war na mën a jàpp si bés bi ndax bisu Ndongo Lo la donc bu dee bëgg nga Ndongo Lo war nga mën a fexe bisam bi am réussite li koy jox réussite mooy fan si yëpp yëpp jot si ñëpp ñi ko war jot jot si loolu mooy tax mu am réussite dëgg la ku ne war si bay waaram képp kuy fans war nga si bay sa waar du du bisu kenn bisu fans yëpp la. dëgg la. voilà. dëgg la Diagne naan kaddu bi vraiment rafet na trop trop mais nag sa dernier kaddu sa dernier kaddu rek. après nga daaneel sa dernier kàddu bi mooy sama premier kàddu rek mooy nekk sama dernier kàddu donc euh, di wax rek ni donc euh, nañu nañu def si nañu jàpp si promotion bi taxaw mhm. euh, taxaw taxaw maam Cheikh si bés bi voilà ba macha allah maam Cheikh bu si gis fan si kontaan voilà bu gisee invité yi ñëw nañu ñu ñu invité ñëpp ñëw nañu mu mu kontaan su boobaa rek mu gën a mën a way gën a inspiration bi gën a ñëw waaw parce que waykat moom bu gisee public rek xolam day neex te boobaa day day woyaat. dëgg la. donc euh, su boobaa rek daañu gis mais dëgg dëgg. dëgg la jaay. donc même bu fekkoon dafa ñëw ak force force sax force bi day wàññeeku. donc lim bëggoon joxe dëgg dëgg du ko mën a joxe donc dana am lu des parce que def naan ah man lim noonu séntu gisuma ko donc fan si ñoo war a def mobilisation bu am doole donc waa VIP ñu ngi waaj waa Ndongo Lo famille ñu ngi waaj waa Ndongo Lo ak Tay ñu ngi waaj waa groupe jàmm ngi waaj donc na ñeneen ñi aussi waaj parce que fan yi nekk ñu si groupe yi am nañ fans yoo xam ne xamuñ sax luy groupe te ñoom ñu gën a weex ñoo gën a nekk fans donc euh, mbir mi mbir mi du mbir mi du si ay groupe mbir mi dafa war génn groupe yi dem si tas si dëkk bi tas fépp wala yem si groupe groupe WhatsApp rek waaw bu mu yem si groupe whatsapp yi na génn na yaatu na génn na génn groupe whatsapp yi dem fu ne. voilà donc di di wax rek donc euh, voilà donc euh, loolu laa si mën a wax pour le moment parce que foofu la ñu toll di wax rek na gaa yëpp fexe def la tout billet bi 5000 euh, francs la VIP bi. quinze mille francs dafa mel ne gars yi dañ ko wàññi def ko dix mille francs de parce que dafa gis naa benn poster bu gars yi génne mu am dix mille francs waaw effectivement effectivement effectivement donc loolu yëpp dañ ko war a leeral donc ah waaw dëgg la effectivement waaw dafa mel ne loolu laa gisaat si poster dafa mel ne gis naa bu bees bu ñu affiche bu bees bu ñu génnewaat au lieu de quinze mille francs VIP bi dafa mel ne wàññi nañu ko ba dix mille francs. waaw ah, mille pour pour bëgg gaa yëpp mën def masse dugg. waaw pour dimbali fans yi xam ne ni jamono dafa metti donc pour fans yi yombalal ko fans yi waaye fal ko fans yi rek mais entrée entrée normal entrée simple bi moom cinq mille francs la donc VIP bi mooy dix mille francs donc loolu yaakaar naa ni waaye fal la boo xam ne dañ ko defal fans yi ndax jamono changé na euh, corona bi am na lu bëri lu mu yàq donc nit ñi xëy na euh, bëgg nañu am nañu envie am nañu yéene waaye waaye xëy na doole gi wu ko mais nag euh, voilà donc di ñaax ñëpp rek balaa boobu xéwal yi waaw sotteeku comme ça ku nekk mën a ñëw voilà soo mënul ñëwee na nga fexe ba xibaar bi egg si koo xam ni bëgg na nangu te te mën na ko ko mm-hmm. au moins kooku mën a ñëw waaw kooku mën a ñëw parce que am na ñoo xam ni bëgg nañu nanguloo bëgg nañu lu mel nii mais boo leen boo fexe ba xabaar egg si ñoom donc da leen defal lu leen neex mais boo leen ko xàññee ah seen xool dana metti surtout su mettee yàlla ko teg ndax yow yaa mm-hmm. yor xabaar bi téye ko joxo leen ko mm-hmm. waaw kon nag kon nañu laa biir rek nañu laa biir nañu na ñëpp a am xol yi laab te xabaar bi kenn bañ ko téye. na ko ñëpp a tas. bu kenn téye xam xabaar bu kenn jot xabaar bi di ko téye. Uh-huh. mu wër rek. na wër bu kenn téye xabaar bi. en tout loolu ñuy ñaan ba bépp bépp ah? waaw. na wër di wër di wër ba ca biir pale ba. waaw waaw war na dugg foofu donc moom mooy li wax léegi na fan si yëpp laa na xoli laab képp ku jot xibaar bi bul ko jot rek déglu ko rek bëgg mu mu niroog bi am ko donc yow war a jàpp fekkee vraiment bëgg nga nongoloo boo tey xibaar bi donc dafa mel na bëggaloo nongoloo boo ko jotee donc képp ku bëgg a nangaloo boo ci histoire bi jàll ko koo xam ne nag doo fan si nangaloo kooku moom waxu moo xam bu la neexee mën nga ko dégg après fàtte ko mais képp ki fan si nangaloo boo yëgul mel nii waroo ko téye boo ko téye rek ça veut dire que li nga wax si nangaloo du dëgg si yow war nga fexe ñëpp jot si sa waa kër bi dëkk sa koñ sa ñëpp ñoo xam groupe yi nga bokk euh, ñi nga xam fépp nga tas ko ba xam ne dana yaatu ba jot ñëpp incha allah. kon Baye Diagne Nar voilà donc loolu laay tëj mhm. waaw jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sa kàddu yi rafet na je pense que tamit ñiy déglu ñëpp di teewlu dégg dégg nañ kàddu waaw loolu moo am solo en tout cas pour man yàq naa loolu foofu lañ toll ndax li li ñu des si temps donc deux semaines moo des donc ah, actuellement loolu lañ mën a wax loolu rek moo mooy mission bi ñu actuellement suñu groupe dañuy arrêté programme yëpp groupe bi ñu yore muy groupe Mame Cheikh ñu dañuy arrêté programme yëpp def nañ benn programme promotion rek la nekk di di soññ waa kër gi rek di soññ fans yi pour que ku nekk jéem a tas xibaar bi yëpp noonu la war a def waaw di di di soññ groupe Ndongo Lo yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu live bi te am ay groupe Ndongo Lo fu mu mën doon euh, bu ñu déggee live bi nañu xam ni donc euh, ñoo bokk ñoo bokk mbir mi ñun li ñu yëg ba tax ñu bàyyi suñu programme yëpp ñoom tamit normalement bu ñu bëggee Ndongo Lo war nañu noonu ba jublu si promotion bi comme ñun donc def ko comme ñëpp rek incha allah ñëpp ànd nekk si liggéey bi xam ne dañ toll si liggéey Ndongo Lo xew le donc ñun ñoo xewle ñun fan si Ndongo Lo ñoo xewle donc waruñu toog rek. di xaar di xaar donc ñun ñoo ko war a def a jëkk def ñoo war a jiite keneen ku ñëw na ñëw fekk ñu si waar wi mais war ñu toog di xaar keneen keneen ki nga xaar kan la fan sa nangu la rek fan nangu keneen du ñëw di ko def seen place donc ñun fan si ñoo ñu xaar keneen amul keneen ku ñu xaar du ñu xaar keneen pour dul ay fan sa nangu la donc ñun ñooy fan sa nangu la kon du ñu xaar kenn nañu commencé siiwal mbir mi

bul xaar kenn kenn kenn yow yaa war a dox li nga war a dox mooy fexe ba xibaar bi wër nga yow nga préparé sa billet koo xam ni xam bëgg na nangaloo nga yëgal ko ko mu préparé billet bu dee mën na euh, jëndal ay nit billet mu jëndal ay nit billet jàpp jàppale leen bu dee moom kese moo ñëw mu ñëw moom kese bu dee mën na ñu mu mu dimbale leen bu dee mën na jënd ay maye mu def ko euh, donc en tout cas ñun ñoo ko war a dox ñun fans yi kese ñoo ko war a dox keneen du ko dox mm. nangaloo nee na euh, artiste loolu public bi donc mm. waykat public la am mu ñu ñooy public Ndongo Lo ñun mm. ñun ñoo ko war a liggéeyal donc ku nekk si ñun fan si Ndongo Lo war nga xam ni waar wi sa waar la amoo kenn koy toog di xaar ku dul ku mel na yaw ku mel na yow mm. mooy fan si rek donc képp ku yëg ni fan si Ndongo Lo rek xibaar bi tas ko ba mu egg fu mu war a egg fépp fépp foo mën a yeggale xibaar bi rek def ko boo ko mm. deful rek day mel na comme ni nga ko waxee si groupe bi dafa mel ne da war a Ndongo Lo dafa mel ne da nga trahir Ndongo Lo dafa mel ne da nga wan ginnaaw Ndongo donc buñ ko def waaw loolu la ñu def. waaw kon ambassadeur ñu ngi lay jaajëfal baax a baax a baax. waaw maa ngi gën a kontaan di. jaajëfal sa sa ñëpp. waaw maa ngi koy kontaan jaajëf kontaan naa bu baax si liggéey bi ngay liggéey di ñaanal yokkute bu baax a baax di ñaanal jàmm ak wér yàlla mosul la dafa la cat sutural la donc euh, gën la jëmale kanam yow mbiru nangaloo bi nga si nekk ak léegi yàgg na deux mille sept ba léegi yaa ngi si bi nangaloo gaañu ba léegi presque un an un an nga commencé ubbi chaîne deux deuxième année bi nga commencé def euh, ay ay vidéo nangaloo donc boobu ba léegi yaa ngi si mosoo taay mosoo bàyyi lu nekk dégg nga ko waaye taxul nga bàyyi parce que da nga gëm li nga def li da nga gëm te xaaroo si dërëm xaaroo si dara xaaroo si ku leen ku leen jërëjëf xaaroo si ku leen lii wala laa ku la wax lu baax yaa ngi si ku la wax lu bon yaa ngi si ma ko jóg ma ko wàcc ñi la woon fekkaat nañu la fi ñi mm-hmm. àndoon ba woon nañ la dem ba xam ne yow si dëgg nga nekk ñu dellu si waat ànd yow donc yow fu nga nekkoon nga nekk rek waxal loolu ca kaw fekk la fi ku dem bàyyi waaw si kaw si kanam rek lu baax rek ku nekk si mbiru la moom incha allah doo ko rëccu waaw tamit ngoon jaay naa waaw xam naa ngoon ce soir à partir de 19h noo gisee noo gisee tamit émission boobu may def muy fële ci ba Leeral FM. émission boobu boo jógee fii fii rek da ngay noppal tuuti xam naa rek dem dem rajo ba. dëgg la dëgg la xam naa ne dimanche sa dimanche dafa dem euh, rajo Leeral FM 96 point 1 Dakar. Dakar waaw def. Leeral FM n'est-ce pas Leeral FM le 96 point 1 Dakar. waaw. Dakar donc euh, donc euh, boo jógee fii ngoon fa nga jëm. guddi waaye 19 heures yaakaar naa. 19 donc euh, mu nekk ñaar ñaari émission yoo xam ni yaa ngi koy si Ndongo Lo. ba faw. si télé bi si télé bi muy bëgg Ndongo TV international boo si jógee am nga Ndongo ba tey fële si si si rajo Leeral FM. donc macha mu nekk. moom sa dimanche moom toujours day saturé mais Ndongo Lo moo la ko jaral te yaa ngi am leneen la waroon def mais danga nga ne Ndongo Lo moom moom laay sacrifié moom laay damay sacrifié pour moom. da euh, foofu foofu ci ba. Ah. il faut ñu tamit ñu daanale tamit tëjee waxee tamit wax wax foofu tamit hommage Ndongo Lo bi. waaw il le faut il le faut donc loolu foo tamit hommage Ndongo Lo am na bu ah. mag a fii ci foire incha allah boobu tamit na si gars yi xel parce que hommage a foofu foofu foofu rajo foofu télé Ndongo Lo donc amul problème loolu moom du problème donc war def mën a jàll donc euh, télé Ndongo Lo donc euh, foofu moom yaakaar naa ay fans Ndongo Lo gi nekk donc euh, normalement ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañu si war a jàpp waaw ñoom seen ñoom si war a jàpp donc donc yaakaar waa leeral ñëpp dañ si jàpp daam jëng ñoom ñëpp a waaw Fatma ñoom ñëpp sa gars yooyu technicien yeeg ñëpp de war na si jàpp ñoom Evans ñoo gis naa booy animé ni ñee ànd ak àll gis naa ne ñoom dañuy bëgg ndogu la lool. dëgg la donc ñoom ñoom ñëpp seen bés la bés boobu ñoom ñëpp dañuy war a teew. amul benn problème ñëpp daal waaw waaw incha allah. waaw incha allah ñu lay jaajëfal waaw kontaan nañ si en tout cas émission boobu kontaan nañ si lool en tout cas initiative bu rafet la bu télé bi def ñu leen si gërëm fan sa ndongo lépp ñoo kontaan si ñoom di leen ñaanal di leen ñaanal rek télé yi di gën a di gën a ngeen ni am ngeen benn fréquence bu bees dimanche prochain bi le anniversaire ndongo bi waaw affaire dafa tombé sax le 16 bi. waaw le 16 la waaw je me rappelle maa ngi suivre comme maa maa ngi suivre live maa ngi suivre live ngeen koy wax naan Ziguinchor solo bi ngeen fi benn antenne bu bees benn fréquence bu bees foofu macha allah dana wër dana wër Sénégal yëpp dana wër 14 régions point 1 waaw bu ngeen nekkee si mbiru ndongo la nekk ngeen tekk si yoon rek léppay baax dëgg la léegi nag waa Ziguinchor waa mbiru ndongo la moom ah ma ne léegi waa Ziguinchor am nañ rajo bi léegi si 93 point 1 waaw macha allah loolu am na solo en mbiru ndongo la moom ku si nekk moom tekk si yoon doo ko rëccu dëgg la loolu moom nekk tekk si yoon boole woo si ay njublañ boole woo si lenn loo xam ne kanam da nga jëm déggoo ma dëggal jubal leeral di yow di saa yow leeral yàgg nga si yow yow yàgg nga wax dëgg dëggal jubal leeral leeral moo tax ñu war a ngay leeral fële. dëgg la de si rajo ba. Ilaah Diagne Diagne Diagne yow doon. yow si leeral yow sa sa sa biir chaîne boo xoolee si biir chaîne bi boo xoolee si sa sa kiiwu bi foofu yaa bi nga bind ak mission boobu mission dox rek. waaw bi nga si commencé bi nga bindee foofu yàgg na ëpp na fukki at. dëgg la ëpp na fukki projecteur yi. te yàlla def ngay dox

damay wax ni ko andak bëgg nongo ko andak mhm. ak ci Cheikh nar andak mhm. euh, waaw groupe bob mom bu andak ñom mom ah bo deggul do do ta do andak ñom ku ku deggul do mëna andak ñom parce que ñun ci dëgg ci dëgg la ñu teg lépp ay xamuñ njuuj njaay xamuñu ay waxu waxu waxu caaxaan ñun ci dëgg bi lay jaar mbiru nongo lo duñ ci bay kenn ku ci def ay caaxaan waaw mbiru nongo lo duñ ci bay duñ duñ nangu kenn di ci caaxaan donc ñun motax tax xëy na ñu bëre duñu mëna andak ñun parce que dëgg bi ñu bëri ñemuñu dëgg mais dëgg dëgg dëgg daa métti Diagne dëgg daa métti donc ñu bëri duñu sawar ànd ak dañu tàng bopp dañu kii mais dëgg rek lañu la dugg di xam ne ay la wala say affaire intérêt bopp donc da def te yàlla tax ñun dëgg neexul te ñun yàlla tax ñun bi si nekkee ba léegi yàgg na mais yàlla mm. yàlla kese yàlla si seet xooluñu si lenn bëgguñu si dërëm wutuñu si dara wutuñu si lenn wutuñu si alal surtout wutuñu si dara yàlla moo tax ñu def ndax lo dañ koy delloo njukkal daf ñu defal lu rëy amuñu luñ ko fayee donc luñ ko mën a fayee mooy ngor mais duñ ko fayee ay ñu jaay ay affaire caaxaan ay affaire intérêt di wutal sa bopp loo def sa poche donc ñu nekkuñ si yooyu nonguloo dañ siy def te yàlla tax voilà ñun loolu lañu mas xam loolu lañu mas xam donc euh, moo tax ku ko def te yàlla tax moom doo si euh, amoo intérêt boo si làq-làqal ñun amuñu intérêt bu ñuy làq-làqal si digg bi lañuy jaar parce que amuñu si intérêt wutuñu si dërëm ku si wut dara nag yooyu am looy ragal ak yooyu ñun dugg ci dara non donc euh, nañu ko teg si dëgg rek mm-hmm. nañu ko teg yow yow boobu léegi depuis depuis 2007 ba léegi ba nga koy bi nga koy liggéey gisoo kenn. kenn mm-hmm. kenn mësul a indil appareil tegal la kenn mësul jëlal caméra kenn mësul jëlal ordinateur. kenn mësul jëlal fil. kenn mësul jëlal micro. lépp sax yaay liggéey def yaay liggéey di aménage si studio. jënd say ordinateur jënd say matériel installé jënd say lépp. ak lumière jox dërëm. oui ma ne di jox dërëm ni la am man fan su Ndongo Lo laa kontaan naa si li ngay liggéey maa la may lii pour nga yokk sa studio maa la may équipe matériel bi pour sa studio yooyu lépp yaa koy ñàkk di si def. Ndongo Lo moo ko jaral ngay ñàkk li am salaire nga jox sa genn wàll waa kër genn wàll si mbiru Ndongo Lo genn wàll sa argent de poche. donc euh, loolu loolu yow wutoo si dara loo ko fukki at ak juróom-ñaar juróom ñaar depuis 15 ans yaa ngi koy def. depuis 15 ans du démb. fukki at ak juróom ngay liggéey di def def si ndongoloo te xaaroo kenn ku la nit li si def rek mooy sa diggante ak ndongoloo kese nga si xool ak yàlla loolu loolu yombul loolu yombul donc ngay wax moom moom dafay dafay jaaxle def naan parce que àddina bi moo toll foofu moo toll foo xam ni nit ki léegi toujours intérêt lay waxee am na koo xam ne buy wax léegi dafay am dafay sóoraal intérêt mais yow bu fekkee yow yàlla rek ngay xool amoo si benn intérêt booy so séntu donc sa wax du neex parce que yow xaaroo si dara da ngay wax rek yàlla kese moo tax xaaroon ne dama am su ma ñu kontaan xaar ma wax lii su ma ko waxee du mu si am dara non ñun xaar xaaruñu si dara dëgg bi dëgg baa ngi nii la loolu rek lañu loolu la ñu ñu dëggal jubal leeral rek mu leer nañ mission bi léegi mu commencé bëri ay ay kii sax dëggal jubal leeral waaw sartal mission dëggal jubal leeral kese chargé de mission dëggal jubal leeral di ko leeral ba mu leer nañu ne jubal ba mu jub jubal ba xam naa jaay dëggal ko boobu dëggal ko waaw xam naa Mauritanie sax temps yi war naa faa commandé ay <laughs> projecteur <laughs> waaw projecteur wuy ma mille watt yi mille watt yi projecteur mille watt yi waaw ba tey ah, ah, boo bëgg rek yow l'essentiel wutal caractéristique yi xamal yan yan yan caractéristique nga bëgg rek. non mil waay mil caractéristique yi rek après. boo ko boo ko yónnee ah conteneur projecteur. parce que xam nga comme comme comme yàlla fa dogal ñu ñuy leeral ba ba far daje ak rajo leeral rajo leeral jëriñ ñu liggéeyee foofu. affaire dañoo war ñuy gën di leer fenn warul lëndam léegi yow léegi man leeral toog sa lamb yi léegi da nga jël lamp di leeral sa lamb yi ak sa lamp ak yëpp tout. projecteur projecteur xaw projecteur yi nekk ci stade yi mille mille mille watt yi. xam na xam naa xam naa yéen. xam ne boo ko taalee day mel ne bëccëg. waaw mais mais mais mais si biir si biir wax bi rek si biir. si biir li ngay wax rek mën na leeral na xam nga wax moom mën mën na leeral ba mu gën leer làmp wax moom xam nga wax moom booy booy wax dëgg mën nga wax li xam ne mooy mooy mooy dëgg ba mu ba mu leeral ba leeral li gën a leer làmp li muy leeral waaw donc euh, parce que làmp làmp bokk taalee sax dana am foo xam ne day am benn obstacle boo xam ne day créer benn genre ombrage mu xaw bi am benn place bu ñuul parce xiir xiir làmp bi muy am la lëndëm doo gis lépp am na foo xam ne doo ko mën gis wante booy wax lépp moom bu fekkee dëgg ngay wax ko làqloo ko lépp day feeñ. dëgg la mais ba tey boo si boo si doolee lamp ay projecteur day gën a leer rek. projecteur yi ñëw projecteur yi ñëw il faut projecteur yi ñëw. wax naa ko waa rajo leer il faut projecteur yi ñëw waaw. fépp leer angle bu angle yëpp ngeen. angle yëpp ruq yeeg ci kaw ak ci suuf ak fépp dafa war di leer naññi. war dama lépp bëccëg. ombrage ombrage du am ombre du fenn lépp fang fang fangara dara du ah en tout cas da doon ne wax dana mel comme benn teeñ ci kaw bopp. la. du la xir. la mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye jaaj allo jaaj allo jaaj waaw ndeysaan mu nekkoon tamit. allo jaaj allo jaaj. waaw baax na kon fi Wow. Halo Diagne xam naa problème réseau bi la. waaw ok donc xam naa rek donc réseau moo xaw a doy waar. donc baax kontaan naa si jokko bi. dëgg naa si jokko bi. kontaan naa lool si jokko bi. ñu jaajëf waaw ma ma ma bàyyi rek ma bàyyi rek pour ñi a dugg jël nañu temps damay teg waaw ziar naa ko a baax dem jële ji Matar oh. waaw baax na maa ngi maa ngi ko maa ngi kon na teewlu kon restez suivez rek maa ngi kon nañu teewlu incha allah restez suivez de la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement waaw sànq suivre moom dama dama xam dama xam fu mu nekkoon moo tax suivre moom mais léegi dinaa suivre incha allah dinaa continuer suivre incha allah liste yow daal restez suivez waaw maa ngi suivre incha allah restez suivez surtout incha allah amul benn problème de la rajo de la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement. Bëgg Bëgg Ndongo TV international la télévision. waaw la la télévision autrement. autrement et mondial émission dëggal jubal leeral. allo Diagne <laughs> yokk si. yokk si mondial instant yii 2022 dañ nekk autrement et mondial. <laughs> télé bi wër àdduna. waaw waaw day baax incha allah léegi dafa war gën a wër sax incha allah. jox na day wër. télé bi nekk fépp. day wër macha allah. jaajëf kontaan nañu kontaan nañu ci yow. macha allah kontaan na lool. merci Baye Diagne Nar ok merci waaw ndeysaan mos nekkoon Cheikh Diagne Naar l'ambassadeur Ndongo Lo ma ko doon oowee fële ca Mauritania mu ñëw tamit dugg ci biir émission bi di wax tamit euh, bisu maam Cheikh Niang boobu di la 5 février fële ca foire di wax tamit le 5 incha allah tamit ñu ci ciy woofal si Ndongo Lo ñëpp ak lu beeg ñëpp le 5 nag ndeysaan maam Cheikh Niang lay def hommage à Ndongo fele ci foar di ci wo àdduna bi ñu ñuy dégloog ñi nekk ñu soreeg ñi nekk de pré ñi nekk de loin ñep fu way nekk rek war nga mëna a ñëw tamit japp ci bis bi taxaw ci bis parce que tamit le 5 février macha allah di ngeen gis lu doyo doy war ci ndongul mam sa ñaare ñëw def hommage à ndongul wo ci waa pikit fan su ndongul ñep kon mam sa ñaar lo bëggee dëggal waaw bul bëggati gox ba dem fa bu la gox ba bëggee demal waaw jogati réew ba dem fa bu la réew ma bëggee dem toogee pikin ji daagu naa see am naa fay soppee pikin ji naaw raay jàpp asade am naa fay soppee waaw loo rey rey gën a rëy fa nga juddoo yow loo riis riis munu loo riis ba gën a di leeb naan ku tekki bëri ndey waaye ndongo mi ma Pikine. eh mais dafa yéeme de li nga koy bisaab lii dafa yéeme dafa yéeme mais ndeysaan la 5 février ku bëgg gis ay way boo ñëwee fële ci CICES hommage Ndongo Lo bi nga xam ne ndeysaan maam Cheikh Niang moo defal magam def tag invité d'honneur bi nag Wally sekk ak Pape Diouf ak artistes Sénégal yi ñëpp waaw le 5 février nag dana yéeme trop trop trop mais nañ bisaab son bi ñu déglu. bul bëgg te dëkk ba dëkk fa bu la dëkk ba bëggee dëkkal waaw.

ba dem fa bu la gox ba bëggee demal tooke bëggati réew ba dem fa bu la réew ma bëggee demal waaw fii ba bee diinaay asaleer am naa fay soppee bikin bool daabe jàpp sagarak am naa fay soppee waaw bëggati dëkk ba dëkk fa bu la dëkk ba bëggee bëggee demal waaw bëggati réew ba dem fa bu la réew ma bëggee dem toogee Pikine gi daagu naa see am naa fay soppee Pikine gi naaw raay jàpp asada am naa fay soppee waaw yëgal loo ray ray munu loo ray bëgg na ray fa nga juddoo yow loo ris ris mënuloo riis bëgg na riis fa nga juddoo waaw waaw dégg naa jaay di leeg naan ku tekki bëri ndey waaye ndongo mi ma gën a rëy ndeyam yi ajaama gen jaay ajaratu ndey sàmb ajaratu yaa faatu yaayu ndongo loo sunu yaayu ma remboo ¡Gracias! Pikine. waa ndeysaan gaa yi nag ku bëgg a gis ay woy rek le 5 février na nga ñëw fële ci foire le 5 février maam sax def hommage à Ndongo Lo fële ci foire waaw le 5 nag ma bëgg tamit ni gars yi ngeen def teew beeg lépp fële ci foire waaw le 5 dina neex dina yëngu waaw maam sax ñaari defal hommage à Ndongo Lo fële ci foire di ci woon ak ñëpp fan si Ndongo Lo yooyu ñëpp waaw yéen ñu suivre bi nag ma leen wax tamit ni partager leen partager partager partager ba ca biir palais ba xam naa damay ñëw rek innovation bi encore di ziar gars yi bu baax a baax let's go ñu dem. ba dem fa bu la gox ba bëggee dem toog Pikine ji daa ngi Colobane am naa fay soppee Pikine Golf foo ngi bu la réew ma bëggee demal waaw fii ba Medina yi asaleem am naa fay soppee ngir góol tàppe jàpp Sacré am naa fay soppe waaw bëggati dëkk ba dëkk fa bu la dëkk ba bëggee dëkkal waaw bul ba dem fa bu bëggee demal waaw ti rew ba dem fa bula rew ma bëgge dem tooge pikin ji daagu naa se am naa fay soppe pikin ji naaw raay jàpp asal de am naa fay soppe waaw loo ray ray mënuloo gën a fa nga juddoo yow loo riis riis munu loo riis ba gën riis fa nga juddoo waaw waaw വരുമ്പോൾ yóbbu na musique fu ne boo demee Amerika ñoom dañu koy bëggee jàpp Londres ñoom ñu ngi lay bëggee dem ba Sudan Adja da koy bëggee ñam jàlloo ma sàmba bi dafa yéeme xaaral ma arrêter ko dafa yéeme nee boo demee ba Amérique yow gars yi dañu lay bëggee nga dem ba Sudan ñoom dañu lay bëggee jëf jàllam si jaaji ma sàmba faal waaye gars yi le cinq février boo kenn fàtte fële ci foire le 5 incha allah ñëw na ba pare parce que tey à yi tey la le 23 waaw tey nag macha allah bi ñu xëyee suba ay 9h nañ ba pare waaw di ñaan tamit que le xam naa incha allah ngoon à partir de 22h wala wala 23h rek xam naa résultat Europe mais gars yi fii maam Cheikh nekk nii dafa yéeme mais wax tamit nii la 5 maam Cheikh ñaa moo oote def spécial hommage à Ndongo Lo fële ci CICES foire. waaw di sàkku nag fan su Ndongo Lo ak ahlu beeg ñëpp na ñëpp teew képp ku nekk ëllëg Ndongo Lo rek mondial beeg àdduna beeg ñëpp na ñëpp teew waaw ma bëgg tamit gars yi ngeen partagé photo yeeg lépp live bi may live mi ngeen partagé ko di ko partage di ko partagé ba ca biir pale ba Mame Cheikh nan dellu fi nga nekkoon boo demee si ñu dem yóbbu na musique fu ne boo demee Amérique ñoom dañu koy bëggee jàpp londu ngi lay bëggee dem ba sidan aja da koy bëggee ñam jàlloo si jaaj ma sàmba nee na faal ndogolu sa làmp ngi leer ba tey jiini séere mama way ñag baalo mam lay mbeng boro loolo ci musique bi Alassane daa tamit euh, la gentleman production muy Mataaru Waali dafa mel ne mu ngi ci online bi xaaral ma jël ko rek rek ma jël ko allo waa Baye Fall maa ngi laa ziar. waaye ci jàmm. waaye ça va si jàmm baax a baax. Euh, dëgg la partout dans la tey nag dama la jël ci live bi dëgg la dëgg la muy live fu xaaral ma foofu musique bi sax muy live fu Ndongo ba faw muy émission bi. dëgg la dëgg la. waaw tey nag ñu ngi ci deuxième ñu ngi ci deuxième partie bi. dëgg la mais yow yaay Matar Waale di la la gentleman production maam Cheikh ñaana nekk ci yow. dëgg la dëgg la waaw vraiment tamit bisam yeeg muy tamit singalam bii nga xam ne moo la woowee Pikine doole bi yëpp yaa ko produire. waaw ñu jëm nag ci bis bu mag muy la cinq février. dëgg la incha allah waaw février nag bis bi mu ngi am fële ca foire yow tamit ñu gis tamit ni nga ciy taxawee ni ñu ciy jàppee ko tamit defee vraiment tamit muy spécial hommage à Ndongo Lo nga ànd ci ak Mame Sagna def bis boobu tamit woo ci fan si noonu la ñëpp. dëgg la dëgg bi nag lañ bëggoon tamit jël la si live bi pour nga leeral le 5 bi naka lay demee ak béyee ak affaire yooyu noonu kon Matar Wali vous avez la parole. waaw euh, Sëley bëgg di la bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax ndax heure bi moom heure bu baax bi la ñëpp ñoo ngi toog du ñu taaral sa émission bi ñëpp ñoo ngi toog di ko seetaan di nuyu ñëpp ñu day seetaan partout dans le monde di bu baax a baax baax a baax baax a baax baax waaw le cinq nag le cinq février muy hommage à Ndongo Lo ñu ci mu nekk fee ci CICES muy le cinq février incha allah rabi te ñëw na ba pare le cinq bii ñëw na ba pare te bëgg nañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëw mhm. ci bis boobu noonu mhm. jënd ci tiggee jàpp ci loolu daal dana doon loo xam lu may neex lool lool lool lool lool wax dëgg yàlla loolu daal moom sele waaw lu gars yi tamit si jàpp rek doyul dëgg la ndax tamit nuñ euh, nuñu luñ koy di waxee mooy doole jën ndox la dëgg la ndax euh, doole moom mooy public bi public bi dëgg la ndax euh, waaw ndax su feesee mhm. maam Cheikh dina dooley way. dëgg la ndax àdduna àdduna tamit da benn côté dafay dafay neex ci côté. dëgg muy lan ngay tëgg ci événement bu mag a mag a mag a mag gis ñëpp ñëwal la. Mhm. sa xol de set loolu noonu dafa dafa dafa sedd ci xol. dëgg la comprendre nga kon de kon kon kon ñëpp noo si war a ñëw jàpp si. jàpp si bu baax a baax a baax ñu xam ne loolu seen yëf seen bis la kenn warul seen wéen kenn kenn ku ne. bis bi war kenn warul si war a mën a jiitu. dëgg la donc Waly Ballago Seck moo ngi waaj. Pape Diouf moo ngi koy waaj. dëgg la Kindala moo ngi koy waaj ñoom Fatou di géwél Soda Mamba Sidi Diop. artistes mhm. yu war a ñëw daal du mën a fen sele. dëgg la jour jour si le moom ci kàttanu yàlla. waaw dinañ gis beneen Mame ci kàttanu yàlla muy way. dëgg di daal spectacle boo xamante ne nii daal buñ fa nara a euh, monter ndax fan yëpp ñoo ngi jaabante foofu noonu di xool. endroit beeg yooyu noonu lu lépp rek pour xool ak spectacle bu ñu fa war a def ak yooyu noonu. ndax bëgg neen euh, képp ku ñëw foofu noonu rek bëgg neen nga kontaan. bëgg neen nga bëgg bëgg neen la xam ne su boobaa euh, di xam ne ni maam Cheikh mii nii kat wax dëgg yàlla kat ci loxo yu mu nekk nii kat nekk loxo yoo xamante ni daal mooy loolu lu ñuy lu ñuy. dafa nekk loxo yoo xamante loxo yu wóor lay doon. waaw loolu bëgg naa daal képp ku fa ñëw. dina kontaan te ku takk sa billet daal. damay ragal déwén incha allah war bi. dëgg la mais tamit ba tey tamit ñu xool bee ku bëggoon réserver sa bee wala tamit sa ticket fan nga ko mën a amee ndax bee génn wala génnul Matar. waaw am na affiche bu war a génn bu def euh, euh, point point de vente yi fu mu war a am. point de vente ndax war na am mbuur waaw war na am mbuur euh, ci aram aram aram fay bu mbuur. mbuur ci am na foofu noonu point de vente ci waa mbuur waaw. waaw waa Thiès. dafay wër daal nekkul loo xamante ah, ndax ndongoloo moom ndongoloo Sénégal la. dëgg la Pikine Pikine Yannick Yannick moo géré foofu noonu parking Pikine bi. Ah, yow tamit am nga tamit euh, foofu noonu sa point de vente boo xam ne. dëgg la ko soxla ticket tamit yow dina la contact. man moom ku jokkoo man rek ma ma ma kii la ko gaaw ma ma la dëgg la. waaw kon kon affaire bi nekk na loo xamante ne lu yaatu lu yaatu ñaari tali euh, euh, Nord Foire Grand Yoff. fépp foo xamante ne nit daal bëgg na la bi bëgg na daal billet neen la ko livré ci kàttanu yàlla. mais ba tey yi moom euh, wër na daal. ba tey Matar yow comme yow mi tamit yow mi nekk producteur bi mën nga joxe sa rek pour tamit ñu nekk da loin ak tamit fu waaye mën a nekk rek bëgg tamit jàpp ci bis bi. wala tamit bëgg tamit recette ay ticket yu bëree bëree pour xam am am ñoo dañu a ñëw mais dañuy jënd ay ay yu bëree bëree pour may ak fans yi képp ku bëgg tamit jënd ay ticket yu bëree bëree pour may ak fans yi dëgg la dëgg la loolu nag euh, euh, Sere. waaw dinaa ci kontaan lool lool lool lool lool nit ku ko def tamit euh, na xam ne ni dëgg la. benn côté na nga xam ne nonguloo nga ko defal. ndax loolu bisu nonguloo te rakkam bi mu bokk ndey ak laa koy defaral comprends nga kon euh, bis boobu noonu kon kenn ku ne war na ci mun a jàpp à cent pour cent comprends nga ndax euh, ñeneen nañ ñeneen ñoo ciy jàpp ku ne moo ngi woon fu ne maam Cheikh ak man mii ak Yannick ku ne moo ñu woo fu ne pour jàpp bis beek yooyu noonu kon bis bi nekk na bis boo xamante ne nekkul bis bu tuuti ndax bi mooy c'est la première fois euh, maam Cheikh di dem salle bu magee bu toll ni si ses comprends am na fi ay ay ay ay ay ay ay moromam ay génération yu fi nekk te ñoom ñëpp kenn nekkul osé wul dem si ses kon Mame Cheikh su osé wee dem si ses ne na day rendre hommage magam foofu noonu kon kenn ku ne war na mën a jàpp foofu noonu bis ku bëgg ci tëggee yi nag euh, na nga woote 77 282 27 14 60 77 nañ ko ndànk ndànk gars yi gars yi mën koy jël attentivement 77 dëgg la quatorze. quatorze. waaw wala wala mu woo la. wala mu woo Yannick. mbaa wala mu woo daal rek. wala mu woo Yannick dëgg la. <laughs> waaw comme ci woo. waaw comme ci solo solo mu mu woo la wala mu woo Yannick comme ci woo rek. dëgg la tike yi moom euh, commencé na wër daal. comprends nga. kon daal tike yi moom c'est disponible dina génn. c'est disponible instant bii nii. dëgg la ku bëgg ci tike yi rek c'est déjà disponible. dëgg la. waaw nga xam nga ak euh, élection yeeg yooyu dëkk bi dafa xawoon jaxasoo. dëgg la dëgg la léegi ñu bëggoon bàyyi ba. yi tey moom macha allah tamit dimanche maa bi lépp lépp jaar na si jàmm xam naa bu lëndee tamit. waaw gars yi teel a kii rek incha allah. non lënd incha allah war a ci kàttanu yàlla euh, euh, dinañ gis bi. ak ci point de vente bi dinañ si jot ci kàttanu yàlla sax ak tamit Matar dina si jot dina wër ci réseaux sociaux yeeg yooyu noonu ma lay fàtt tamit bu ma lay yóbbante tamit bul fàttali leen comme tamit defar ay tra yoo xam dañuy wër rond point yëpp taf ko fi parce que tamit bisu dooloo moom na ko ñëpp yëg dëgg la dëgg la non def nañ ko sax loolu semaine bii nii la war a génn ci kàttanu yàlla semaine bi ñu lu ngeen si war a taxaw rek pour bi rek man bu ngeen ma wooyee ma ñëw wàcc sur le terrain pour amul benn problème foofu yëpp la ñuy taf incha allahu rabbi dina dinaa jox euh, yéen su ma ko joxe tragué euh, yow pour mu taf yoonu Pikine beeg yooyu dina la joxaale sa wàllu yow ma lay promé ma lay promé waaw rajo bee ma nekk di Leeral FM dëgg la chaque émission bu ma dee daaneel dinaa dinaa daaneel loolu dinaa ne ah le 5 kat maam seex Niang mi ngi joué fii spécial hommage bu mag a mag fii ci foire di di hommage Ndongo Lo le moom na gars yi préparé ñu fii foire inshallah lol mom man sama engagement nako ko daan la béyee boo nag waa waa service commercial wa service commercial dag ma lu bari mais radio bama nek Leer FM suma ma demee ba war a tàggoo dinaa tàggoo waale loolu ah Ndongo mi mii kat le 5 février rakam da kay rendre hommage rendre hommage bu mak fi ci foire wa lol nak mom ñing kay ñing kay ngi wa kër gi muy dam Dieng borom radio ba ak ñi bëgg ndongolo ñëpp waaw le 5 foire ak mam Cheikh ñaan inshallah yow nak euh, euh euh salé dañ yow dañ lay faral euh duñ la gërëm mais dan lay faral di la ñaanal. dëgg la dëgg la ndax nit suy jàpp ci doomu aadama ci mbiram. Mhm. da nga koy faral di ko ñaanal yàlla rek. Mhm. di ko bàyyi yàlla suñu borom. comprendre ndax yow de man Cheikh ak man nag ak képp koo xam ne ko bëgg Ndongo Lo sa fay. ndax yaa ngi jàpp ci bis bi yaa ngi dooleel Ndongo Lo fu ne kon suñu amee ko mel ni yow. suñu amee ku mel ni yow loo xamante ne ay moroom yu bëri bëri bëri bëri ñu mel ni yow. kon mbir bi dina gën a avancé. comprendre nga mais yow dañ leen sant di la gërëm. comprends nga man moom man man personne kontaan naa lool ci yow barke Cheikh Ibrahima kontaan naa lool lool lool ci yow kontaan dama lay dama lay bàyyi ak yàlla sunu borom rek lu ci kanam nag réew li bët ci kàttanu yàlla sama yéene ci yow xam naa ko te dinaa ko matal man ak yow ba nga xam ne ni carrément matal naa ko ndax nit moom man suñu suñuy jàpp sama yëf ak sama yëfu artiste man dama man dama dama lay fonk te dama lay respecté te man dama la am fu ma la teg comprendre nga kon lépp lu ma lay wax rek mooy lan li nga li nga nekk nii Mm-hmm. sunu borom dina ko dem defi ji ba nga tëji télé boo xam day wër àdduna xam nga site bii bii ne Sénégal ñëpp ñoo ngi koy seetaan ba àdduna ñëpp dañ koy seetaan mais di nga am télé boo xam ne ñëpp dinañ euh, ku zappé sa sa télécommande rek yow lay njëkk a gis te si kàttanu yàlla bii loolu dina am ci waaw waaw yow yow yow yow sunu borom rek amal jàmm rek bala bala bala cinq la cinq daal jàppal ni daal loolu sa yëf la te waa nangu bëgg nanguloo TV bii nañ ñëw man maa ko may ñu ñëw euh, couvrir ko en direct. en direct la <laughs> dëgg la ndeysaan. Ah, teg naa ko sa loxo loolu noonu ndax euh, xam nga euh, lu faral sooy faral yenn événement yi. yow moom yow moom xam nga su boobaa lu ma lay dénk. Ah, ah. utal ma rek utal ma rek projecteur bu bu yem bu ndaw parce que lumière. ma am lumière bu leer parce que maa bëgg tamit su may filmer li may filmer di leer naa ñi. jeex na lool noonu ci kàttanu yàlla. su la neexee suñuy balance sax. suñuy balance xam nga suñu nee suba la danoo danoo war a balance ak yooyu noonu balance beeg yëpp ak répétition yeeg yëpp après su boobaa dinañ dinañ dinañ la ko jàllale yow su boobaa soo si mënee jaar nga jaar jël si ay image man loolu man maa la ko permettre comprendre nga jël say image comme say moroomu shit yi ñu may contacter bëgg see jël image ak yooyu noonu yow nga jëlee si noonu image comprendre nga ndax euh, mbir mi comme yow moom euh, li li nga ci sotee nii kon yow kenn kenn warul xañ ci loo xamante ni lenn loo ci événement la. dëgg bañ ba ba tuddee sa bopp bëgg Ndongo bëgg Ndongo TV bëgg Ndongo rajo lu ne. nga ko euh, say réseaux sociaux say plateforme fépp. kon am na ci loo xamante ni kon ñun ñuy suñu bopp tamit noonu a mun a dooleel ci côté boobu noonu. te ci kàttanu yàlla événement bi dinaa la ci dooleel ba nga xam ne nii carrément dooleel naa la amoo sens interdit. lépp loo xam ne di bëgg nga ci am bëgg ko pour couvrir pour intégralement rek. soo ma woowee may la ko gratuite incha allah rabi ci kàttanu yàlla. yow ñoo far dëgg la yow borom baax nga. kontaan naa mais sa sa mot la fin looy wax gars la suivre nii sa mot de la fin. waaw di nuyu ñëpp nag di leen ñu wax ni nag euh, la cinq. Mhm. bëgg naa nag ñëpp ñëw ñëpp ñëw kontaan naa ci ñëpp franchement gars yi sonn nañ ci ñu ci ciy daw wax dëgg yàlla mais di di leen ñu wax ni rek. bëgg naa ñun ñëpp ñëw jàpp ci maam Cheikh mm. jàpp ci lépp loo xam ne lu ñu war a jàpp ci maam Cheikh rek mm. nañ ko jàppale te yàlla rek tax mm. comprendre mam maam Cheikh moo fi nangaloo ndax euh, koo xam ne nii da nga bokk moom ndey ak baay te maam Cheikh ay album ak ay yeneen ay clip yooyu noonu yëpp ñoo ñëw doole beeg yëpp ay clip moo ngi war a ñëw ci kàttanu yàlla am yu bëri daal yu war a ñëw surprise yu war yu war a ñëw ci réseaux sociaux bi kon gars yi nañ ko xaar nañ xam ne ni carrément Cheikh moom ci yoon ndax euh, su jógee si test fii nii ci kàttanu yàlla suñu si génne ak jàmm salaam bis bu ñu waree defaat beneen émission dinaa la wax ci kàttanu yàlla fan leen war a jëmaat ci kàttanu yàlla ndax euh, man ànduma ak koo xamante ni nii de ragal ak yooyu noon man damay faral di ko wax ni euh, maam Cheikh sooy ànd ak man bul tiit bul bul ragal fépp foo xamante ni nii fi nga war a sa morom war a taxaw rek dinaa fa teg ci kàttanu yàlla dinaa ko fa teg ba at na xam ne ne carrément maam Cheikh mi mataar waali mi mu nii tegu na ko fa ba àdduna xam ne ni teg naa ko fa ci kàttanu yàlla ba te yàlla baax na lu ci kanam nag rëwli bët ne mm. ñëpp nag xool rek di seetaan rek di nuyu ñëpp nag di leen di wax ne nag yéen ñëpp kontaan naa ci yéen yal leen yàlla fay gis naa taxaw bi nga ñu taxaw ak yëpp bu yàlla bu fay daal yal na leen sunu borom fay daal ci jëm Serigne Touba kontaan naa wax dëgg yàlla kontaan naa. dëgg la waaw vraiment tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. kontaan naa bëgg ndongo franchement kontaan naa ci émission bi waaw di am kontaan naa jaajëf jaajëf Matar waa day gën a jëm kanam rek jaajëf gentleman production jaajëf jaajëf yow mom gis gi yalla lépp lepp am en résultat amin jaare bi amin ok jaajëf merci Matar jaajëf jërëjëf kontaan beug bëgg naa jaajëf mata waaw ndaysan kooku nag nekkon Matar Wali di gentleman production ndaysan tamit euh, événement mag bi di hommage à Ndongo Lo moo ci gunge Cheikh Niang mu nek producteur nga xamne ndaysan bu yagul rek la fois passé son bi ni may balance muy son mam Cheikh Niang Pikine dole bi moko ko produire maam Cheikh Niang di japp ci ay mbiru mam Cheikh Niang di tamit euh, dooleel Mame Cheikh vraiment tamit and ak mom ci bis bi di spécial hommage à Ndongo fele ci foire Cissesse ku ne xam ne foire Cissesse du lu yomb parce que salle ba seer la ngay fay serna na macha allah mu nek salle bu ngand tamit dafa laaj public public bu mu laaj nak du dara lu dul axalu bi la laaj ak tamit fas Ndongo Lo képp comme tamit su bëgg Ndongo ak li ngay war ci Ndongo deug la le jour ji allah nga def tew fele ci foire Cissesse le 5 février woo nañ ci fas Ndongo Lo yeeg kon gaa yene a ko nak suñu live ñu ngi ci 2 heures de temps 5 minutes di wax tamit ne yi l'instant nii il ci ngoon xam naa nag damay ñëw rek dugalaat benn songu maam Cheikh ñaa bii nii muy pikin doole bi bu jeexee rek ma jëlee ji maam Cheikh Niang xarit bi su jeexee après ma dugal sama générique ñëw tëj nag parce que lu neex du doy dañu koy dog bu benn yoon xam naa nag 17 bu ñu jeexalee du ñu yem foofu damay noppalu 18 heures rek pause 19 heures ma dem fële ci rajo ba muy rajo Leeral FM 96. point 1 Dakar xam naa nag foofu nag ku ñu bëgg a toppandi rek boo ñu owee 77 215 37 3 ñu jël la nga bokk ci émission ba waaw xam naa dañu dem ñëw tamit seeti ci Mame Saha Niang kon Mame Saha Niang waxal ñu dem let's go am naa fay soppe

juddoo yow loo riis riis munu loo riis ba gën a riis fa nga juddoo waaw waaw waaye ndongo ayu ndongolo sunu yaay marembo yéeme na ndeysaan mu ne ko tamit Mame Cheikh Niang la préféré de Ndongo Lo l'homme infatigable l'homme qui n'a jamais reculé du tout ndeysaan moo woote nag le 5 février fan la oote xanaa fële ci foire CCS tamit nag damay ñëw seetaan nag Mame Cheikh bi mu woy ndeysaan samay xarit boobu yéeme na parce que boobu ca la woy mami ka yaatu yàlla la neexoo waaw xam naa nag le 5 février dañu ñëw tamit wayal ko ci beneen facette waaw ñu ne jëli son après ñëwaat nag di bëgg gars yi baax a baax ñu seetaan ci live bi wax tamit ne gars yi partagé partagé partagé partagé ba ca biir pale ba ñu dem sëriñ maam sax ñu dem let's go seen yaram waaw gars yi ndeysaan à l'instant yi nag ñu ngi suñu cëppaandaw émission xam naa damay ñëw rek dugal générique bi après tamit ñu préparé rek tàggoo di wax tamit lu neex doy dañu koy dog ba beneen yoon beneen yoon incha allah mu gën fee neex mais tamit mi wax tamit ne gars yi à l'instant yi rek ndeysaan tegal tamit 18 euh, minutes xam naa nag bu ñu posé rek 18 heures bi noppalu 19 heures ñu ñëw jàll dem fële ci rajo ba muy rajo Leer FM 96 point 1 Dakar egg la nag émission bi foofu waaw fa la ñuy eggalee animation bi des fa lañ koy eggalee waaw xam naa incha allah ñu def 19h ba 20h fële ci rajo ba 96 point 1 Dakar muy rajo Leral FM xam naa bu ñuy pare fii rek fa la ñuy daw jëm tout droit def fa émission Ndongo Lo ba tey li bëgg na gars yi ñu fi jaaroon ñëpp ci laay bi ñu doon seetaan entretien bi ñëpp xam naa xam ñu dugal seen bi après nag su seen bi dawee après mu ñëw tàggoo mu ñëw tàggoo. faa ndonga nee na wax ji bari na loolu ndonga nee na coow li bari na lool ñii ña ngi xalab ñii di ma xeex ñii di ma suul ñii di def ay yëf nee na su doon man ak man bàyyi naa ndax jaru ko vous êtes en direct sur la faa ndonga nee na wax ji bari na loolu ndonga nee na coow li bari na lool ñii ña ngi xalab ñii di ma xeex ñii di ma suul ñii di def ay yëf nee na su man la chaîne télévision Beutou Ndongo waaw ñu gën koo xam ci Mbaye Tëllin ndeysaan maa ngi dëgg maa ngi déglu bëgg Ndongo TV l' international waaw waa Sénégal moom la ñuy déglu waa àdduna moom la ñuy déglu foo dem ci monde moom la ñuy déglu kon bëgg Ndongo ca kaw.

maa ngi seetaan ak di déglu bëgg ndongo international TV la télévision au Touba. Barago Seck bi maa ngi lay siyaare ci bëggeel bi nga bëgg ndongo loo te di dëgg ci yow ah waa kër ndongo loo yëpp maa ngi lay siyaare rawatina maam Cheikh le cinq février rek maam Cheikh le cinq février deuxième fois di soob yàlla di leen ci jàpp. dimanche bu jot à partir de 15 heures. waaw kon nag bëgg ndongo avec bëgg ndongo tv c'est la chaîne de autrement autrement autrement Mbeng Seck dëkk Mbacke Bawal su ma bëggee information yi leer ci bëgg ndongo TV laa koy kal deen ak euh, dimanche bu nekk bu trois heures et demi jotee lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi dem si YouTube jàpp sama chaine préférée muy Bëgg Ndongo TV International. yee digal M6 ngay am foofu maa ngi seetaan ak di déglu saa su Bëgg Ndongo TV International. télévision bi xew ci jamono. waaw ak émission Ndongo Lo ba faaw bu ko kenn tardé man faa jom Maroc maa ngi ci biir dëgg neexul rang muy bëgg ndongo international bëgg lu neex dégg lu neex gis lu neex affaire bi fii la bëgg Ndongo TV international autrement bëgg dégg lu neex gis lu man Mbacke Gueye dëkk Touba di fan si Ndongo Lo seetaan gaaw leen ngeen dem abonné bëgg ndongo set en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV te doom yombul mbokk ndeyim Kumba Aram Mbay jigéenu Samba vous êtes en direct sur la chaîne télévision Paarabo mai kigeru sabo Saba wainala jigenu je Jemu daw Yal nañ la defal bisu mel ni Yal nañ la langal bisu mel ni Su boba je sa trondo de simeku barke borom Touba autrement nak bëgg ndongo ciap kaw révision autrement dafa ko def benn direct boo xam ne C'est jéebul c'est dinañ la langal dana autrement ak sama émission bu mag boobu nga xam ne émission bi nga xam bëgg moo koy def te di la euh, ay son C'est xam yu neex lay doon ak yu waaw kon gars du changé damay wax ni c'est important sur la chaîne télévision bëgg TV international la chaîne télévision autrement chargé de mission dëggal djubal leral toujours copier mes amis tout égal may ziaré gars bu baax a baax a di bëgg nak ñu fi jotté jaar waaw su ma nee ñu fi ñu fi jot jaar rek damay ziaré bu baax a baax Cheikh Diagne Naar ambassadeur ndongolo bu may invité won ci live bi vraiment mu leral lu bëree bëri ci limit le 5 février ak maam Cheikh nya maam Cheikh nya nak le 5 février moy joué fële ci foire di spécial hommage à ndongolo mu ma ñëw tamit invité Matar Wali ndeysaan mu ñëw timit ci live bi. wax tamit ci ndeysaan le 5 février bi may ziar bu baax a baax soxna Aram Faye gis naa ko ci commentaire di ziar soxna Nabou di bëggee bu baax a baax a baax ñu ngi doon suivre ñëpp di ziar nag sunu sëriñ sëriñ Dame Diouf ni ku ne xam ne ne bis boobu rek ñu ngi ko ci woo bu a baax baax ko wax yow Diouf lambaay lambaay bi vraiment tamit euh, ñaanal ñu bu baax a baax a baax parce que wax dëgg fi yàlla soxna seen ay ñaan ak tamit sa doole ak sa lépp wax dëgg fi bi rek nga ñëw tamit vraiment jàppale ñu bu baax a baax a baax ci bis bi waaw di ko wax tamit grand yeeg ñëpp waa groupe jàmm ak ñëpp ñu ngi leen koy wax ak tamit fépp fu wërër Ndongo Lo nekk ak fépp fu fan su Ndongo Lo nekk rek ñu ngi koy wax waaw xam naa nag fii la ñuy daanale tey nag moom macha allah xaabaabal nañ parce que dañ daan jeexal 5 heures waaye tey moom dem nañ ba 5 heures presque 30 minutes lay mu ñoo jot nii waaw presque il est 17 heures 20 lan 27 presque waaw daanaka instant yi mun naa ne nañ ko yóbbu ba 17 heures 30 rek ñu jeexal benn yoon waaw suñu jeexalee nag képp ku ñu suivre ci live bi képp ku bëgg Ndongo Lo képp kuy topp tamit ay émission Ndongo Lo yi na nga dem fele ci radio leeral fm parce que radio leeral fm dafa def lu ngand ngand lu pata lu mak ndaysan ki yore radio bi ooma ni ma bëgg ndongo sa émission bi ngay def muy ci youtube muy émission ndongo la ba faw dama bëgg tamit nga ñew indi ko sama radio def ko fofu tamit tek ay son ndongo lo tamit fatal nit ñi mbir ndongo lo ma ne ko acceptal ko vraiment tamit suñu paré rek ba jéxal ma ngi jëm fele ci radio ba muy radio leral fm 96.1 dakar fofu nak 19 h lay tambali ba vingt heures waaw incha na ko ñëpp bàyyee ni xel incha allah après falaa jëm xam naa après sax ku bëgg a bokk ci émission bi sax mën ngaa woote ci 77 215 30 03 77 215 30 03 boo wootee rek di nga mën a bokk ci émission bi en direct nga participer émission bi ñu waxtaan vraiment tamit fa laay eggalee ci li des nag ci émission bi dama koy dëxëñ rek waaw li des ci animation bi dama koy dëxëñ dencandi ko dem fa la ci rajo Leral FM eggale ko foofu. bëgg na gaay baay ci xel bu baaxa baaxa baax a baax Alé Sané su may rek maa ngi jëm fële ci radio Leral FM 96.1 Dakar may ziar bu baax baax sun technicien yi ñu mel ne tamit Mouhamed di ziar bu baax borom rajo ba muy sëñ Dame Dieng di bëgg bu baaxa baax sama directrice programme muy tamit euh, soxna Fatima moo koy bëgg bu baax baax Fatima Coulibaly di bëgg tamit ñu doon top ci live bi ñëpp ñu doon suivre ñëpp may wax tamit ne live baa ngi nii ku seetaan ba pare rek na nga jël lien live bi partage ko si groupe yi nga bokk yépp yépp yépp comme frère de di wax rek partager partager partager ba ca biir pale ba mu dugg fépp ñëpp ànd seetaan seen émission Ndongo Lo ba faw instant bi nag seen émission Ndongo Lo faw fii laa koy yemale rek di wax tamit ni ngeen ko xaarandi ba benen dimanche ma ñëw defal leen spécial seen émission Ndongo faw fii ci YouTube bi di chaîne YouTube bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement la chaîne télévision mondiale télé bi nekk ca kaw loolu yàlla def muy télé Ndongo Lo su ma jeexalee nag comme ni ma ko waxee rek baye boo ngeen toppandi ma fële ci rajo Leeral FM rajo Leeral FM nag ñi nekk de loin bu ñu duggee Facebook mën nañ bind ci page bi mën nañ bind Leeral FM 96 point 1 Dakar bu ñu defee noonu recherche rek daa ñu gis page rajo bi waaw bu ñu gisee page rajo bi rek mën nañ dugg foofu parce que bu ñuy def animation fële ci rajo ba dañuy def tamit en même temps live direct Facebook waaw bu ci page rajo bi rek ngeen abonné wu ngeen aimé bi. incha allah tamit ngeen mën a toppante tamit suñu ay émission incha allah kon ñu ngi jóg nii léegi léegi def tout droit dem fële ca rajo ba muy rajo Leeral FM 96 point 1 Dakar boo nekkee ci biir réew mi boo nekkee bitim réew nga dugg Facebook tàppee rajo Leeral FM 96 point 1 Dakar nga dugg ci page bi nga aimé ko nga mën ñee seetaan nii di ñu gis toppandi live foofu wéyee ni seetaan bi foofu bu baax a baax a baax kon gars yi di ziar gars yi baax a baax di kon gars lu neex du doy dañu koy dog ba benn yoon nag ba ñu ñëwaat affaire yi gën a neex di jaajëfal ñëpp ñu ne toppatoo si live bi ñu doon leen di bëgg bu baax a baax di wax tamit ne gars yi suñu ay vidéo muy vidéo chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV International yéen ñu ñëpp ñu ngi leen di sàkku tamit ngeen partagé ko parce que doo lay jël ndox suñu ay live mooy partagé leen ko waaw képp ku seetaan rek même soo ko partagé fukki personne sax baax na partagé ko nga seetaan kii seetaan kee seetaan kële seetaan ñee seetaan ñii seetaan ñële ñëpp seetaan déggoo ma de déggoo bëgg ndogu de fi may daane la tey mooy képp ku seetaan suñu live bi partage ko nga seetaan kii seetaan kee seetaan ñee seetaan ñene seetaan ñee seetaan ñëpp seetaan ba ci biir pale ba di jaajëfal gars yi bu baax a baax xam naa ma dugg daal seen rek tàggatu fii ñëw ñëw ñëw dem ko rajo kon gars xoolal dem naa de maa ngi ñëw dem rajo ba incha allah rajo ner la kon daw naa dem rajo incha allah gars jaajëf ciao tudde doom yombul jee tudde doom yombul mbokkum ndeyum kumba aram mbay jigéenu samba sana jigéenu samba sana yaayo xala yaayo xala yaaga kumba arama may jigéenu samba samba way naa la jigéenu jeeg ndaw yal nañ defal bis bu mel nii yal nañ la langal bis bu sa trondo simeeku kumba arambay simeeku ñëppay simeeku bay jaañe sa wuy jeebul jooy dinañ la langal dana neex su boobaa nee na wax ji bari na loolu ndonga nee na coow li bari na lool ñii ña ngi xalab ñii di ma xeex ñii di ma suul ñii di def ay